bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka anta alalimu alhakim allahuma allimna ma yanfauna wanfana bima allamtana wa zidna ilman nafia amma baadu fa assalaamu aleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah wa barakatu ala kulli xaal ñu ngi rafetlu bu baax jataay euh, bi di ñaanal yàlla subhanahu wa taala mbokk yi fi teew yëpp yàlla saxal ñu ci njub yàlla li ñuy góor góorgóorloo ba ñëw yàlla nangul ñu ko sàmm ko tamit ba dara bañ koo yàq ci nga xam ne moo jóge ci wàllu xam-xam ak yi jóge ci wàllu bànneex ndax nit doomu aadama ñaari quwa moo nekk ci moom quwatul basira ak quwatul irada muy kàttanu xam ak gis mën a ràññet dëgg ak kàttanu am coobare ak bëgg réer buy ñëw ci benn ci ñaar yooyu lay jaar mooy li yàlla wax ne ihdina siraat almustaqim siraat alladina anamta alayhim gayr almaghdubi alayhim wala dallin yàlla bi mu waxee siraat almustaqim dafa wax ne bokkul ak ñaari yoon benn yoon bi mooy ñi nga xam ne seen réer ci basira la nekk ñenn ñi nga xamante ni seen réer ci irada la nekk mooy ñi nga xamante ni seen réer ci ñàkk xam la ci wàllu xam-xam la leen jaare ak nga xam ne seen réer xam ba pare lànk bañ a jëfe kon bëgg-bëgg bi ak coobare bi ak jubluwaay bi fa la seen réer nekk kon ñaari bunt yooyu yëpp nit ci war na góorgóorlu ba réer bañ ko faa jaare yàlla nañ yàlla taxaw bu baax ba réer bañ ñoo jaare ci benn ci ñaar yooyu ñu ngi rafetlu tamit e, liñ fi fekk ci mbokk yi nga xam ne ñoo fi nekk di ay mbokk julit nekk ci quartier bi ci gox bi yëpp di fi góorlu ci wàllu góorgóorlu ci yaru l'islam ak njàngu li xam-xamu l'islam fekk fi tamit e, suñu mag suñu doomu ndey Ahmed Abdul Majid Euh, buñ ko fi fekkee kontaan nañ ci trop ci daje biñ daje ak moom fii parce que moom moomu woo woon waxoon ma ne mbokk yi dañu sàkk woon nga ñëw fii am ak ñoom jotaay ngeen waxtaanee lenn ci seen wàllu diine mu nekk loo xam mënu ma ko koo gàntul gàntul ndax cër bu am man la loolu moom moo ko waral euh, kon il fallait que ñu ñëw yàlla xam ne sax tey dama amaatoon beneen waxtaan boo xam ne ci même jour bi laa ko programme noonu parce que damaa juum li koy waral mooy di xaral di bañ a bind di jàpp noonu rek bu ñu la waxee après da nga soo moytu da ngay fàtte waaye boobu lañ mujj puus léegi ne nañ jiital waa Tëngéej barakallahu fikum léegi li nga xam ne moom lañuy ñuy waxtaane ci jataay bi dafa nekk benn mbir boo xam ni nekkul lu xëy xëy rek juddu tey ci jamono li am solo mooy xam ne yi ñuy jàngat ni dafa nekk ay mbir yoo xam ni feeñoon na lu jiitu ci yeneen anam ak ci yeneen tur yoo xam ne léegi day feeñaat ci jamono mais ñi koy feeñal wala ci ñi muy feeñee ci jamono duñ nangu ku ko jox tur yooyu boo waxee sa xaw koo méngaleeg tur yooyu ñu mer dal ci sa kaw ba fan yi ci ginnaaw am na waxtaan bu ma defoon boo xam ni dama ci doon rek joxe exemple ba tudd alxawaarij yi nga xam ne ñoo jëloon kat ngànnaay jëmale ko ci saxaabatu rasulillah te dara yóbbuwu leen woon si dem bay bay daganal deretu jullit ñi ak seen alal lu dul ñàkk am xam-xam bu xóot ci lislaam ma wax ne yonante bi dafa leen melaloon ne yaqra'una alqur'ana wala yujawisu taraqihim dañuy jàng alquran du weesu seen buli al imaamul Qurtubi ne loolu tekkiwul ne àggul seeni xol pour ñu gëm ko mu ne li muy wax foofu mooy ñàkk am fiq lahum qulubun la yafqahuna biha ndax xam-xam bi bu àggul ci xol bi nit ki du ko am fiq du ko dégg kon lañ cay xool ca kaw rek ci texte yi ñoom niñ koy déggee noonu lañ koy jëlee atte ko ci kaw jullit ñi di leen takfir exemple bu ndaw bi ma ci joxe mooy wa man lam yaxkum bi ma anzala allahu fa ulaika humul kafirun ñi nga xam ne atte woowuñ li yàlla wàcce ñooñu ñooy yéefar al imaamu alqurtubi dafa waxaat ne zahiru aaya boobu mooy aaya bi liñ ci déggee ci kaw amul kenn ku ko jëfe ku dul alxawaarij ñu daal di sànk ñu réer ibn al arabi al maliki dafa wax ne tax li nga xam ne mooy zahirul aya lam yaqul bihi ahad amul kenn koo xam ne jëfe nga ko ndax zahirul aaya mooy képp koo xam ni ñàkk ngaa jëfe li yàlla wàcce ci lenn lu mu mën a doon yéefar nga est ce mën nga wax ne képp ku bàyyi ak te yàlla ci benn masala bu mu mën a doon jëfewuloo ko yéefar nga est loolu mën nga ko kon li muy tekki kon mooy képp koo xam ne ci masala teewati na benn qadiya nga atte ci atte bu dëppoowul ak li yàlla wàcce da ngay génn ci lislaam loolu mooy zaahirul aaya mooy li ñu war a jële ci aaya bi ndax wa man lam yaxkum bima anzala allah man boobu dafa bokk min alfaaz al umum bima anzala allah kadalik min alfaaz al umum kon aaya bi amma la loolu lu mu lay won rek mooy bu texte bu mel noonu ñëwee ahlu sunna seen dégg bi ñu ciy am chaque fois dañ koy delloo ci li ñu tuddee qawaidu sharia ci li ñu déggee maqasidu sharia muy règle yi nga xam ne mooy règle l'islam yi ci lañ koy delloo pour lëkkale ko ak loolu ndax xam nañ ne ci l'islam mënoo yéefaral nit ci bàyyi bu mu bàyyi atte yàlla ci benn masala ci benn sabab boo xamante ni du tax mu nekk mu nekk ci yéefar masalan mu topp bànneexam masalan ñu neexal ko masalan mu gàttañ lu ci wàllu diineem te nangu ne li mu def mooy yàlla la boo xam ne xëy na dina ko jural bàkkaar dafa topp bànneexam kooku jàdd boobu mu jàdd atte yàlla ci masala boobu ahlu sunna dañu xam ne loolu kenn mun ci yéefara nit ci lislaam ndax gisuñu yonente bi alayhi salatu salaam gisuñu saxaaba yi ñu yéefara nit ci bu defee loolu kon ñoom bu ñuy dégg texte bi dañ koy delloo ci tawfiq ko ci lu mel noonu pour la ca bokkul ñu génnee ko ci mais duñu taxaw ci kanamu texte bi rek lépp lu mu leen jox ci dalaala ci mafhum ci déggin ñu jël ko daal di koy appliquer léegi pour joxe exemple ci ne nit bu amee genre déggin yu mel noonu ci ni ñuy interpréter texte yi moo xam alquran sunna wala ba ci waxi borom xam-xam yi chaque fois ci ay garaawale lay dugg te day jàpp ne li muy wax ak lu mu mën a yàq ak lu mu mën a jóg ci ay fitna dëgg la joo xam ni moom la yàlla wàcce ci Muhammad ibn Abdillah ndax façon réer boobu dafa garaaw nit ki bu ci nekkee pour mu dellu ci ginnaaw dafa garaaw ndax li tax mooy day réer ba pare yaakaar ne ci la ndax li muy jàng ci ay adilla moo koy wor ndax day yaakaar ne adilla yi moom moo dëgëral loolu nga xamante ni moom lay wax ma doon bàyyiloo xel kon ci loolu ñu tuddee ak satxiya fil istidlal muy ne nit ci jam terre benn façon bu terre à terre bu muy jëfandikoo texte yi di ko tegtaloo ndax képp koo xam ne kullu mutakallimin comme ni ko Shaatibi waxee ci al-i'tisam kullu mutakallimin fi diin rek yaqulu qaala allah qaala rasulullah yarjiu ila al-kitaabi wa sunna képp kuy wax ci diine rek da nga koy dégg mu naan la yàlla nee na yonent bi nee na alayhi salaatu wasalaam waaleykum salaam wa rahmatullah mais problème bi nekkul ci waxu yàlla nekkul ci waxu yonente bi alayhi salatu wasalaam mi ngi nekk ci seen tegtaluwin ci waxu yàlla ak seen tegtaluwin ci waxu yonente bi alayhi salatu wasalaam loolu moo tax alimaamu Shaatibi ca I'tisaam mu def benn buntu def ma axiduhum bil adilla mu daal di wax ci njuumte li nekk ci ñi nga xam ne ñooy saxalee ay bidaa ci waxu yàlla ak waxu yonente bi alayhi salatu wasalaam naka la mën a nit di saxalee bidaa ci waxu yàlla ak waxu yonente bi alayhi salatu wasalaam loolu laa doon wax ba tudd koon xawaarij yi ba wax exemple ci wax bi doxoon waxtaan bi doxoon seen diggante ak Abdullah na Abbas bi mu demee seeti ji leen di leen nasiha bi mu leen laajee lan moo leen jotale ak Ali ba ñu génn jël ay ngànnaay dem daje campé fenn ne dañu pare pour xeex ak moom ñu wax ko ne ko ñetti problème la benn bi mooy dafa négocier ak waa Sham nangu tekki garaatam ci amirul muminin léegi imam mu nekk amirul muminin wala mu nekk amirul kafirin beneen bi ci des mooy ñi muy jàpp ci ñi muy xeexal bu leen jàppee du leen rey te bu yaakaaree ni bu jàppee ne duñu ay yéefar waru leen a rey di xeex ñoom ndax képp ku xeex ak jullit rey ko yéefar nga yonent bi moo ne sibaabul muslimi fusuuqun wa qitaaluhu kufr kon xeex ak jullit yéefar képp kéefar la beneen bi ci des mooy lan moo tax muy nangu ay góor toog di atte ci téere yàlla bi te yàlla def ne inil xukmu illa lillah yàlla rek moo am atte keneen warul atte ku dul yàlla mu ne leen su ma leen tontoo ci yooyu di ngeen dellu ginnaaw ñu ne ko waaw mu leeral leen ko benn par benn ci xam-xam boo xam ne bu xóot la kon bi may tudd xawaarij foofu dama doon joxe exemple ak mooy tundukaloo nit ki façon yenn euh, méthode yi ñuy ci jamono te lu bëri muy këf lu bëri ci ndaw ñi nga xam ne seen xam-xam jotagul ñor àgg ci benn niveau bi ci benn tegtaluwun bu oyos bi ci alquran ak sunna boo xam nit ki da ci sukkandiku ba mu jural ko mu mujj wuteeg borom xam-xam ak sunna yi nga xam ni bu ci ñoom la daan dellu daan tënku ci seen i wax ak seen xam-xam bu ma ko waxee na ma ma ci sama bopp na ma ma ci ko tolloog man maa ngi ci nam kàngaam yi nga xam ne ay mag lañ ci ci xam ñu eh, ñi ci xamoon daan dellu ci ñoom di nga gis ci dem ba ñooña sax day mujj woroo ak ñoom safaanu ak ñoom te leen du ko yóbbu ci loolu lu dul tegtalu win boo xam ne bu oyof la kon ci loolu laa cité woon xawaari ji mais benn mbokk dafa daal di yëkkati téléphone am woo ma commencé di dal sama wax ne dama wax ne ñooñu ay xawaarij lañ ma ne ko yaake man waxuma ne ñooñu ay xawaarij lañ lan laa namm ci nettali loolu mu loolu mu def li ma ci namm mooy pour bàyyiloo leen xel ci ne alismu laa yugayiru min xaqiqatin musamma mooy ne dafa am benn règle ci l'islam mooy ne tur du soppi lañ ko tuddee tur du soppi xaqiqatu lañ ko tuddee loolu lan lay teg mooy tur yi amul solo li am solo mooy sens yi ñoo am solo loolu l'islam di xool bu ay kuréel génne tey di am doxalinu alxawaarij ci ni ñuy yéefaralee jullit ñi xawaarij dañ donte nanguwuñ ku leen tuddee xawaarij nga le fekk nga tuddee leen ko ak nga ñàkk leen ko tuddee buñ tuddoon xizbullahi sax bi nga xam ne moo nekk ci alquran ulaayika xizbullah la wax wa man yatawalla allah wa rasulahu walladina amanu fa ulaayika hum xizbullah ñi nga xamante ne bi ñoom ñoo ànd ak yàlla akub yonentam ñoom ñooy ñoom ak ay jullit yi ñooy yonent ñooy ñooy xizbullah ndax yàlla daf ne wa man yatawalla allah wa rasulahu walladina amanu fa inna xizballahi hum alxaalibuun kon ulaayka hum xizbullah sax wala la léegi xizbullah bi nekk Liban nekk ay raatiba est ce que dañuy wax ne ñoom liñ nekk dëgg la ndax xizbullah lañ tudd tur bu rafet boobu ñu am te yàlla tagg ko ci alquran est ce que day tax lañ nekk baax lañ nekk rafet kon mbir mi delluwul ci ay drapo yu ñuy yëkkati ay tur yu rafet yi ñuy dégg ci biti wala lu ñuy bañ ku leen ko tuddee mbir mi mi ngi dellu ci jàngat li nit di wax teg ko ci alquran ak sunna ci déggin bu leer ak li nga xam ne moom lañ xam ci qawaidu ahli sunnati wal jamaa ci buntu bi nga xam ne ci ñu wax lu ñu loolu jox ñu àttee leen loolu àttee seen wax loolu mais nekkul ci bul ma tuddee xawaarij bul wax ne xawaarij la ndax euh, bañ ko loolu du mbir mi nekkul foofu mbir mi mooy nañu xool wax ji ak doxalin bi ndax mënees na ko askanale loolu walla déet kon li nga xam ne moom la ñu waxtaanee damay wax ne buntu takfir lu feeñoon la ci jamono ci anam boo xam ne bu jéggi dayoo la cheikh al islam day wax ne mooy fitna bi mooy bidaa bu njëkk am doole ci l'islam ay nit jën ko ci diine ba beru ci génn ci yoonu ahlu sunnati wal jamaa nekk kuréel bidaa bi njëkk jur kuréel mooy bidaatu takfir mooy bidaawu yéefëral mooy li ñu tuddee al asmaa wal ahkam mooy kii julit la kii fasiq la kii kaafir la wa hakada loolu ñu tuddee al asmaa wal ahkam bidaa bi njëkk a feeñ foofu la feeñ loolu la mu jur ci yàqate kenn xamul nu mu toll tur yooyu ñuy tuddee nit ñi dafa am ay atte yoo xamante ni moom lay waral ci ñoom léegi boo attee nit ki ci loolu wala boo attee boo jëlee atte bi nga teg ko ci nit ki dafa am léegi lu muy waral diggante ak moom mooy li muy waral mooy lan mooy da ngay jàpp léegi deretam dafa war sax mu tuur ko ndax jullit bi yonente bi alayhi salaam li mu waxoon ne man baddala diinahu fa qatuluhu képp koo xamante ni soppi na diineem na ngeen ko rey kon nit ki bu nekkoon jullit ba jamono mu génn ci lislaam def istidaat dañ koy dañuy tuur deretam wala boog nga jàpp ne deretam dagan naa tuur nekkatul maasumu dam li yonente bi alayhi salatu waxoon ne fa in faalu dalika asamu minni dima dimaahum wa amwalahum illa bi xaq al islaami wa xisaabuhum ala allah léegi isma boobu yonente bi alayhi salatu salaam waxoon ne sax na ci deretu nit ki deretu jullit bi mooy deretam ñoŋ na waree su koo tuur alalam tamit ñoŋ na da ngay jàpp ne teggeeku na léegi dagan na la bu boobaa kon ay conséquences yu bëri la am ba tax na loolu nekk na buntu boo xam ne borom xam ne dañ ci mës di teyloo nit ki di ko si def loo ndànk bu ñu waxee takfiir takfiir liñ ciy déggee li ci ëpp mooy fekk ku nekkoon ci julli ci lislaam nga génn ko ci biti mais takfir chance bi gën na yaatu loolu ndax takfir mooy yéefaral nit considéré nit yéefar jàppee nit ci yéefar maa nisbatul insaan ilal kufr léegi loolu mën na nekk koo xam ne fialan li cosaan ci moom mooy kéefar mooy yéefar la woon wala koo xamante ne li cosaan ci moom mooy l'islam mais bu boobaa règle dafay wute bu baax a baax a baax ndax fekk koo xam ne ak yéefar la bu kéeféram sax ci alxuraan sunna nga saxal kéeféram bokk la koo xam ne jullit la nga war a atte ci moom léegi lu ko génne ci lislaam boobu ndax dañuy wax ne al aslu baqaau ma kaana ala ma kaan li cosaan mooy mbir bu fi nekkee dañ koy jàppee na mu nekkee ba xam ak soppeekoom mbir mu nekk boo demee ci moom ba ko atte xamee woon ko nenn nga dem ba jamono ngay sikki sàkk ndax jóge na ci noonu mu nekkee woon dem ci leneen wala ma nga ca la mu nekkoon ba léegi dañuy wax ne jàppal ne ma nga ca la mu nekkoon ba baa ngay am tegtal bu la wan ne jóge na ci loolu dem ci leneen mooy li Cheikh Abdul Majid wax léegi ne man sabata islaamuhu man sabata imaanuhu bi yaqin laa yazulu bi shakkin loolu cheikh al islam moo ko wax rahimahullah koo xamante ni diineem dafa sax ngëm yàllaam dafa sax ci loo xam ni yaqin lañ ci am ne jullit la deesul teggi ci moom l'islam boobu dindi ko ci moom ngëm yàlla boobu def ko ab yéefar ci loo xam ne des tey sikki sàkka kon yaqin moom moo koy dindi mooy lañ li ñuy wax naan al yaqinu la yuzaalu bi shakk al imam nawawi rahimahullah wax na ko ci xaditu الرجل الذي شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجد الشيء في بطنه قال لا ينصرف أو لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا muy xadis bu nekk ci saxiixu muslim nit koo xam ne dafa jàmbat yonente bi alayhi salatu salaam ne buy julli dafay am lu muy yëg ci biiram mel na comme daa am ngelaw bu génn ci moom muy dafay ballonné mu ne ko bu la loolu dalee ci sa julli bul dagg sa julli dem di jàpp ji waat yaakaar ne sa julli yàqu na ba baa ngay dégg kaddu wala nga xeñtu xet gu la dugg alimaamu nawawi nee na bi ñu sar xadis boobu nee na li ñu ciy jàngee comme règle mooy ne loo xamante ni yaqin la mooy lu wér lu nit ci jàpp ba fas ko ne ñu la tëddee du fekki fas fas fas boobu ci moom di gëm lu safaanoog loolu li fekk amul yaqin mooy amaatul leneen lu leer loo xam ne moo ko dikkalaat kon sikki sàkk dong sikki sàkk dong doyul nga jàpp ne sa julli yàqu na sa njàpp toj na pour nga dem yettali jar njàpp li fekk amuloo ci lu la leer kon loolu règle la ci l'islam naka noonu tamit jullit bi bu fekkente ni ngëm yàllaam sax na ba nga ba mu leer la ci li ñu mën a atte ci biti loolu balaa nga koy atte loo xamante ni dafay dindi ci moom atte boobu doon atte ngëm yàlla doon atte jullit di ko def atte yéefar nit ki da ci war am loo xamante ni du mbiru sikki sàkk wala loo xam ne euh, nekkul lu leer loolu nag xëy na dinañ ci wax tuuti ci kanam mais li ñuy njëkkee mooy waxaat ci ne ginnaaw buñ ne fitna boobu wala boog coow loolu nga xam ne mooy yéefaral nit lu teel a feeñ la ci lislaam fekk na saxaaba yi ñu ngi fi fekk ne xulaafatu wala xilaafatu al xulafa ar rachidin ñi ngi fi ndax fi jaamaar loo la woon ak ñoom dëgg-dëgg mooy ali bin abi talib radiallahu anhu moom moo xeex ak ñoom mu continuer ba suñ jamono ji ñuy dund nii day feeñ ci jamono dem ba jamono mu nëbbu day am ay mbir yu bari yoo xamante léeg-léeg mooy waral takfir di feeñaat bokk na ci yi tax takfir jékki-jékki di feeñaat mooy bu ñu demee ba xam-xam néew doole ci ay nit te am ay mbir yu leen naqari yoo xamante ni ci seen wàllu diine bëgg nañ koo faj loolu boo ko xoolee suñ jamono ji mën nga wax ne li gën a waral fitna takfir bi gën a am doole ci jamono ji commencé waat di génn ci benn façon bi mooy ne jullit ñi dañ leen di provoquer chaque jour guddi ak bëccëg di leen bundu xatal di leen euh, néewal doole di tuur seeni i deret di tas seen i société di yàq seen i dëkk métit boobu di métti ci xolu jullit ñi léeg-léeg ñenn ci ñun bu fekkente ni xam-xam bi war a nekk ci ñun nekkul ci ñun ak yar bi war a nekk ci ñun formation bi préparation bi des na mooy waral benn explosion de colère muy mer boo xamante ni ak nit ki frustration bu muy dajale loolu bu demee ba dëgër ci moom moo koy puus ci muy commencé di am ak tar ci nit ñi àttee ci diineem mu indil ko benn taral boo xam dina ko ci yóbbu ci wàllu diineem loolu mën na ko puus ba borom xam-xam yi mu waroon déglu bu leen gisee ñoom ñuy dalal ak di leeral ak benn bennal day xeeb la ñuy def ak la ñuy wax da koy xeeb day yaakaar ne li ñu waroon taxawee ci solutionné problème yooyu wuñ ko li ñuy def dafa yéex loolu xaw na dal saxaaba yi ci sulxul xudaybiya bi ñu jógee Makka ànd ak yonente bi alayhi salatu wasalam mu ne leen tëdd na nelaw yàlla wan ko mu gis ne dugg na Makka sawaaf ñoom ñëpp bi ñuy génn ñu jàpp ne bu ñu demee kon loolu yonente bi alayhi salatu wasalam gis ci nelaw dañ koy def ci at moomu ñu dem baar bi ci benn bërëb laata ñuy dem Makka mu campé fa wàcc fa kuffaaru Quraysh yónnee ay nit ne ko doo dugg Makka duñ la bàyyi nga dugg Makka muy nekk aw xas wu ñun arab yi di xasee ba keroog bi su penc kon da ngay dellu mu nekk fa di ci loolu négociation yooyu mi ngi mujjee ci Suhayl ibn Amr Suhayl bi mu négocié bi yonente bi alayhi salaam ba ñuy bind seen accord de paix boobu keroog lu bëri loo xam ne nangul la ko kuffaaru Quraysh ñu bari si jullit mu mënuñ ko woon comprendre ndax nañ toog fukki at yoo xamante ne dañuy jàmmoo li ngay njëkk a posé question mooy kon suñu daawa ak suñu jaamaarloo mi ñu nar a jaamaarloo Makka nar nañ koo tagtee fukki at fukki at néew nekkul lu ba nekkul lu new lu bëri la fukki at yoo xam ne kon fexe yi fexe ñu daan pour nangu ci ñoom màkka def ko mu nekk dëkku jullit kon mooy dootuñ ko def mu nangu fukki at yooyu beneen bi ci des jullit bu jógee ci ci ñun daw ñëw ci yéen da ngeen koy delloo waaye ku jóge ci yéen daw ñëw ci ñun duñ ko delloo noonu lañ ko toppee noonu lañ ko toppee luñ ci wax rek ci yu mel noonu yonente bi alayhi salatu wasalam nangul leen ko ba Omar ibn al-Khattab di jóg ne lan moo tax ñuy nangu ci suñu diine ñu ñàkkal fayda te kenn musuñoo ñàkkal fayda ba ñuy nekk ci caaxaan yonente bi alayhi salatu wasalam xamal ko ne ko loolu mu def yàlla subhanahu wa taala moom moo ko ci moom moo ko sant bam naan ko ndax waxuloo woon ne dinañ duggu màkk mu ne ko ndax dama la waxoon ne la ren lañ ci dañu dugg màkk keroog bi ñu jógee foofu bi ñuy dellu màkk yàlla dafa wàcce ci suratul fath di leen bégal victoire boo xam ne ndam loo xam ne am nañ ko ci kuffaaru Quraysh ci màkk ci yëfër yi Omar ñëw ci yonente bi alayhi salaam di ko laaj ndax li ñu def nii mën nañ ko tuddee ndam mu ne ko ndam la yow Omar ndam la te mujj la xam moom Omar ne xaqiqatan keroog accord de boobu ñu signé woon seen diggante ak kuffaaru Quraysh ndam la ndax loolu moo jur ndam li ñu am ci fatxu Makka ubbi bi ñu ubbi Makka loolu moo ko jur loolu li ñu ciy jàngee mooy bi fa Omar jógee dafa dem ba bi muy faatu daf ci jële leçon boo xam ne fàttewu mooy dafa mujj di wax naan ittahimu ra'i ittahimu ra'i dee leen di tuumaal seen xel yi dee leen di tuumaal seen xel yi keroog bi yonente bi alayhi salatu di nangu di signé ak Uh, Suhayl ibn Amr ba Abu Jandal di doomu Suhayl ñëw ak ay jéngam daw jóge Màkka ndax dafa gëm yàlla ñu jéngoon ko fa mu ci ñëw Suhayl ne li ñu siñante woon ci kii lañ koy njëkk appliqué day dellu Màkka nee na keroog su ma mënoon a delloo ndigalu yonente bi alayhi salatu salaam dinaa ko def ndax yaakaaroon naa ne lam doon nangu dafa ëpp yaakaaroon naa ne lam doon nangu nekkul na mooy li gën ci ñun waaye dem na ba leer ko ne ndakate lam fa nangu lépp mooy loolu li ñu rek mooy borom xam-xam bi yàlla may xam-xamu lislaam mu am ci ba àgg ci benn niveau bi léeg-léeg yow ndaw li sa xamaat sa tàngoor ak sa ni ngay jàngatee xew-xew yeeg problème yi nga xamante ni moom la jullit ñi di jànkonteel dina la yóbbu ba àggale ci benn xaal boo xam ne yenn waxam soo moytul doo ko nangu doo ko comprendre ndax da ngay yaakaar ne problème bi li koy solutionné mooy jaamaarloo borom xam boo xamante ni dafay nekk naan du ni nii la di jubbanti di wax ci wàllu yar ak wàllu continuer li ngay wax mooy da naan kii dafay nooyal kii daal wax dëgg yàlla dafa mel ne eh, dafa ragal wala yu mel noonu léegi loolu lu jar a bàyyi xel la mooy ne yonente bi alayhi salatu wasalaam bi mu nekkee saxaaba yi yim daan gis ak yim daan xool di ko bàyyi xel ci sori yoo xamante ni nit ciy xool ci li teew nii rek bëgg ko solutionné ci saa si du ko gis kon yi nga xamante ni moo daj suñu jamono ji yu war a mën a tax takfir dellusiwaat dafa bëri ci provocation yooyu ñuy provoqué jullit ñi ak anam bi ñu nekk léegi léeg nit ki bu ko toppee su moytuwul rek mu yóbbu ko ci ay rolo ci ay excès yoo xam dina ci àgg ci wàllu nu muy juger yenn position yi ak nu muy jëlee yenn position yi te loolu xam naa ñu bëri ñoo xamante ni lu mel noonu moo leen pousse bañ dem bay jeexitalu ci yenn jamaat ci yenn kuréel yoo xamante ni ci takfir boobu la ñuy wax kon loolu mën nañ wax ni mën moo delloo si waat loolu di ñëwaat ci jamono ji ci ni nga koy gisee ci dëkk yu bari ay nit yu fa ay gànnaay di xeex boo ko seetloo seen xeex boobu ñuy xeex li ci ci takfir la la lalu néew ma fépp la nag mais dama ne lu ci bëri comme loolu tamit nit mës sama ci woo téléphone di ma ci interpellé mais lu am la ndax jamaat yooyu ay jamaat la yoo xam dañuy takfir dañuy takfir takfir bu jéggi dayoo te ñiy takfir suñu réew mi ci jamaat yooyu la ñuy dellu saa boo leen tuddee sax ñu wala téléphone di la wax ne lan moo tax ngay wax ci jamaat sàngam pour wan ne la mbir bu ci am mais jotaay bi nekkul ne suñu yitte mooy toog fi di wax ci jamaatu nangam wala jamaatu nangam man jamaat yi may tudd nekkul ne mooy sujet wu samay waxtaan mais dafa nekk ne da leen di cité comme exemple loolu nga ci nam mais des fois nga cité ko comme exemple nit woo la interpellé la ne la dama la dégg ngay wax jamaatu Daesh dama la dégg ngay wax Boko Haram bokko Haram sax yaakaaru moo ne woon Sénégal am na fi ak askanewoo ci ñoom di wax ne li ñuy def jihad la ba bis nit woo ma téléphone di wax ci jihad bi am ci àdduna bi bay saxal jihaatu Boko Haram di wax ne al mujahidun lañ ak yooyu moom waxtaan nañ wax wax nañ tànn nañ wax bu xaw a sori mais la mu doon wax wax dëgg yàlla pour man nit ku am xam-xam ku jàng xam-xamul islam du ko wax te li ma ci gën a jaaxal mooy ku lay woo di la wax ak yow di la di la bëtan pour nga changer position ci xew-xewu adduna bi boo ko laajee ndax jàngu nga ci fekk buntu jihad mën na la déedéet jàngul buntu jihad te pour mën a atte ci l'islam ci xew li ñu tuddee fiqu nawazil ci xew-xew yi am di di wàcc foog nga boole ñaari fiq ñaari dégg-dégg ak ñaari xam-xam benn bi mooy fiqhu alwaqi wal qadiya mooy xew-xew yi am foog nga xam ko am ci dégg-dégg bu leer xam lan moo xew ak naka la xewee ak li ñu def lan la am ci tasawur boo xam ne bu wér la beneen bi ci des mooy nga xam atte yàlla ci xew-xew boobu xam atte yàlla ci xew-xew boobu pour mun koo atte atte bu jub alimam ibn alqayim rahimahullah dafa wax ne ci i'lamul muwaqqi'in bu nit ci boolewul ñaari xam-xam yooyu pour mën a jël atte yàlla yi wàcce ko ci xew-xew yi am day wax yaakaar ni li muy wax mooy atte yàlla mais li muy wax du doon atte yàlla ay rava ay dégâts rek lay def léegi yow naka nga mën a toppee information yi di nem ci internet beeg fu ne nga fay dem di suivre te amuloo bagage intellectuel ci l'islam bu la may nga xam lan mooy atte yàlla ci xew-xew yooyu léegi boobaa nan ngay atte say sentiment ngay atte loolu moo ci gën a dangereux mooy sentiment ngay atte sentiment léegi li ci metti waat mooy ñooñ di attee sentiment ñooy wëlbatiku waat di jugé nitu xam-xam yi di wax ne li ñuy wax njuumte la parce que bi ñu waxee maag mbokk boobu ci téléphone li ñu mujjee maag moom te mu mujj ma indil tuuti ma mënatuma contrôler sama bopp ci wax ji mooy def na ma doaat yi nekk Sénégal di daawa daawa wuñ comme ni ko yonente bi alayhi salatu wasallam jàngale li ñuy daawa ak li yonente bi alayhi salatu digle bokkul ma ne ko kon li mooy wane leen ngeen jëm te soo moytuwul ngeen di déclarer jihad ñoom ngeen di tàmbale ndax ku wootewul ñi yonente bi alayhi mooy kon da nga bokk min duwaatu dolal te duwaatu dolal dañ bokk si ñu war a jihaadal ma ne loolu mooy musiba bi kon ndax da am seen i askaar yoo xam ne képp ku ci dëppoowul ak yéen dafa sànku dafa réer loolu mën naa dugg ci dem ba takfir ko léegi bu ngeen ko takfiree ci leen di jural mooy bis bu ngeen di sàmbale yëkkati ngànnaay ko jëmale nga xam ne ñooy gàllankoor yéen li ngeen nekk bu boobaa soo moytul duwaat yi fi nekk di woote ci alquran ak sunna te ragal naa ni si ñoom nga gisee sunna si ñoom nga jàngee alquran ak sunna ba xam ci li nga ci xam soo moytul ci ñoom ngay tàmbalee di leen takfir ak di dina ci ñoom ngay ñoom ngay jihaatal kon loolu fitna la mooy bu ñu demee ba euh, niveau ni toll ci niveau bu toll noonu ci ñàkk am xam-xam ak formation ci l'islam muy wëlbatiku waat fekk ñi nga xam ne seen dund lépp ci yoonu alxuraan ak sunna ci jàng ko ak jàngale ko dañ ko jeexal moom moo leen di jugé di wax ne ñoom dañoo juum ci ni ñuy wootee dëppoowuñu ak alxuraan ak sunna bu la waxoon ne borom xam laa woo borom xam wax ma ko nga ne sax borom xam boobu Euh, mën naa xoolaat la mu wax ndax juumu ci wala déet mais moom moo def jugement boppam moom ci boppam koo xamante ne bi subhaana rabbil azim du sax taalibu ilm maanaam du sax kuy jàng xam-xam wala mais bopp bi fees na dell tàng kër ndax information yi topp ci àdduna bi mais loolu doyul bul di focaliser wu trop ci dugg ci internet bi dem ci ay site dem ci euh, nu mu tuddati forum yi tàngal la jër ba nga tàng ñu monté la ba nga tàng nga commencé di jël ay position xamal ne ci ngay dem bu boobaa mais góorgóorlu nga jàng sa diine bunt yi nga xamante ni bi moom moo la yitteel nga jàng ko xam ko ba xam ci lan moo ci atte eh, yàlla ak atte yonente bi alayhi xam lan mooy politique bu l'islam ci jihad jihad nekkul une fin en en soi maanaam nekkul objectif pour objectif pour def ko rek pour def ko mais jihad dafa nekk loo xam ne moyen la pour atteindre ay objectifs yoo xam ni dafay jariñ l'islam kon lan moo ci politique gu l'islam mooy sàmm ci lu ñu tuddee al maslahatul amma mooy intérêt général u yi pour sàmm ko pour protéger ko moo tax ñu yoonal jihad léegi boo wëlbatikoo kon di yoonal jihaad yoo xam ne intérêt boobu daf koy yàq di jur ay loraange bu boobaa dañuy wax ne sa jihaad bi xoolaat ko parce que jihaad nekkul woon lu yàlla yoonal pour rek def ko pour def ko mi ngi mel ne digle lu baax tere lu bon borom moo xam ne dañuy wax ne boo diglee lu baax mu jur ci yàqute lu gën a rëy lu baax la nga doon digle kon na nga war a bàyyi sa lu baax li ngay digle boo teree lu bon mu jur mbonte wu raw lu bon la nga doon tere dafay xaram ci yow nga tere lu kon digle lu baax dina xaram tere lu dina xaram al imam ibnul qayim nee na loolu ijmaa la loolu ijmaul ulama la léegi nit bu la waxee ne la tere lu bon xaram na da nga naan ko subhanallah yàlla mooñ tere loolu bon naam yàlla dalaa tere loolu bon pour résultat bi ñuy jur moo tax mu tere loolu ko mais waxu loon nga def ko rek pour def ko kon bu la yàlla sante yonente bi alayhi salaam sant la ne defal dara ci yoonu lislaam da ngay xool li tax sant la ko ndax def bi ko def jur na loolu wala safaanu loolu la bu juree safaanu loolu xamal ne defatoo li la yàlla santoon bul ne def naa li ma yàlla sant léegi loolu nag moom mooy problème mu wax ak léeg-léeg euh, nit ñu toll ci niveau boobu boo leen di bàyyiloo xel yu mel noonu duñu la nangoo déglu ci texte yi rek la ñu focalisé wu duñu nangoo comprendre règle yooyu nga xam ne ay xawaay te amma lañ koy tuddee xadis boobu buntu boobu buntu takfir liñ ci waxtaan ci bàyyiloo ci xel ci euh, mbir boobu mooy yonente bi alayhi salaam waxoon na ci pour li lay wan ne la nekkul lu lu oyof loo xam ne nit ki day jóg rek wax ko dax ne woon ida qaala rajul li axiihi li axiihi mooy li axiihi almuslim wala li axiihi almumin yaa kaafir faqad baa biha ahaduhuma ci yenn riwaayat mu ne fa in kaana kama qaala wa illa rajaat alayhi muy xadis nekk saxiixu buxaari ak saxiixu muslim mu ne bu jullit waxee mbokk jullitam ne ko yow yéefar maanaam mu tuddee ko turu yéefar mooy li ñu leen wax sànq ci al asmaa wal ahkam mooy mu àtt ci moom kéefar mu ne kenn ci ñoom ñaar jël na tur ba jël na àtte ba mooy kenn ci ñoom ñaar nekk na ko imma la mu wax demee na mu ko waxee mooy ne kooku yéefar la wala bu demee wala ni mu ko waxee moom mooy nekk yéefar loolu borom mooy wax nañ ne bu fekkente ni daf koo def ci tayeef ci yéefaral koo xamante ni xam na ni ci jullit la deful lu waral ñu kéefaral ko boo ko tuddee yéefar ci loo xam ne tayeef la day nekk yéefar ndax dafa mel ne l'islam la àtte ne kéefar la moo ne boo nee jullit bi nga xam ne l'islam lay dund nga atte ko kéeféer màggale l'islam bi muy dund daa mel ne nga ne l'islam di nekk ci moom kéeféer la loolu da koy yéeféeral bu dee nag dafa gis mu def benn jëf mu yaakaar ne jëf ji na ko ci l'islam ndax chaque fois yaakaar lañuy wax parce que loolu baab boobu istihaad la li dul istihaad rek mooy loo xam ne nekk tas nas moo ñëw ni nit kii ki yéeféer la mais bu dee bu ñu waxee ne jëf sàngam ku ko def yéeféer nga wax sàngam ku ko def yéeféer loolu atte boobu général loolu lañ tuddee al hukmul mutlaq mais loolu boo ko bëggee jël atte boobu nga appliqué ko ci nit loolu beneen niveau la boo xamante ni ijtihaad moo koy def te ijtihaad imma mu nekk dëgg wala mu nekk njumte ida xakama alxaakimu fa ijtahada fa lahu ajran wa in axtaa fa lahu ajr bu nit ki jaarte mu def ijtihaad imma mu dëppoog dëgg am ñaari yoon wala mu juum kon ijtihaad day nekk njumte wala mu nekk dëgg tayib mooy li Malik waxoon ci ijtihaadu saxaaba ne xataun wa sawaab fandur li nafsik njumte moo ca nekk wala dëgg xoolal kon lan moo ci dal sa xel nga jëfe ko kon ijtihaad imma xaq aw sawaab kon loolu la ci def suñ ko tuddee taxqiqul manaat taxqiqul manaat mooy règle générale bi nga jël ko appliqué ko ci kenn loolu lañ tuddee taxqiqul manaat loolu boo ko nit ki def loolu ijtihaad la boo xam mën na caa jum comme mën na caa dëppoog dëgg kon nekkul xat'i nekkul loo xam ne yaqin la boo xam ne dañ naan la boo xam ne bu ko nit ki defee yow boo ñëwee ne ko déedéet ki nga yéefaral du yéefar yow da ngay nekk yéefar comme ñoom niñ koy jàppee ndax ñoom dañ jàpp ne ñii takfir seen nekk yéefar leer na leeraay boo xam ne bu nit ki nanguwul ne ay yéefar lañ moom yéefar la te problème bi nekkul ci ne yàlla yéefaral na ku def nangam yonent bi yéefaral na ku def nangam loolu yow d'accord nga ko ak moom mais li ngay uute ak moom mooy atte yooyu yàlla atte ci ay jëf ñii def nañ ko naan mais est-ce que automatiquement day tax ñu ne ay yéefar lañ parce que ahlu sunna dañuy def tafriq bayna al fi'l wal fa'il dañuy def différence entre jëf bi yàlla kéeféral jëf bi yonent bi kéeféral euh, saxaaba yi sax wala salaf yéefaral ko ak ki def jëf bi ndax moom dañ koy yéefaral loolu cheikh al islam am na wax jum si wax joo xam ne ala kulli xaal li ma doon wax mooy bugguma di def waxtaan di focaliser wu trop ci di lire ndax day dem ba dafay xaw a déconcentré ñi ñuy déglu te yow muy wax dafay dis ci yow tuuti mais euh, ñenn ñi bu ñu la déggul ngay lire texte comme ñoom ni ñu koy defee dañ naan li ngay wax say wax bopp rek la <laughs> comme mbokk bi keroog dafa ma woo téléphone ma te sax seetlu naa bay wax ci tafsir yow doo wax aaya doo wax te waxu boobu rek ngay wax ma ne ko parce que sa sa jàng moo soriwul moo tax rek boo boo jàngoon lu sori di nga xam ne li may wax du samay waxu bopp cheikh al islam rahimahullah bi mu waxee ci lenn li am ci léeg-léeg yenn jëf yi yi ñëw ñu taksiral ci nit euh, ñii bañ ko ci taksiral mu ne ute boobu di ci am ci taksir yéefaral ko wala ñàkk ko yéefar mooy lan moo ko jur mu ne sababu hada tanazui taarudu al adillati fa innahum yarawna adillatan tujibu ilhaqa ahkam subhanallah léegi moo wegee nekk ci liir ba pare soog a waxaat dafay day waar tuuti Cheikh Islam rahimahullah lan la wax ci majmuul fatawa daf ne waral loolu mooy dañuy gis léeg-léeg ay tegtal yu ñëw di wax ne jëf sàngam ko def yéefar nga jëf sàngam ku ko def yéefar nga wal bëtiku nga gis nit def ko koo xamante ni jullit la boo xam ni mi ngi seede ne la ilaha illa allah muhammadun rasulullah di jullit di def arkaanul islam di def defi dina yëpp mu def jëf boobu ñu ne woon jëfu kéefar la ku ko def yéefar nga léegi naka nga ko mën a génnee ci l'islam te mi ngi ci biir l'islam cheikh al islam nee na foofu wax ji la ko jur lépp mooy ñàkk def différence entre atte ab jëf ne kéefër la ak nit def ko nga takfir ko ne yéefër la mu ne ñaari yooyu ñaari niveau yu bokkul la ndax nit ki bu ko defee dafa am yeneen mbir yooyu xoolaat yu bari ndax dajale ci moom ba tax nga mën koo yéefaral wala déet mu ne li la koy firndeel mooy alimaam ahmad ibnu hanbal ñoom bokk na ci aimatu salaf yi daan wax naa man qaala alquran maxluq fa huwa kaafir képp ku wax ne alquran waxu yàlla ji ab mbindeef la yéefar nga loolu as salaf toxal nañ ko jële ko ci ñoom ànd ak loolu maamun bi nga xam ne alxalifatul maamun bi nga xam ne moo jamononte woon ak imam ahmad dóor ko dóorlu ko dóor yu metti ci bëgg ko forcé pour mu wax ne alquran maxluq ne alxol alquran waxi yàlla ci mbindeef la al imam ahmad defu ko ñu fitnaal ko ci téye ko këram lu yàgg ba mu sonn ci loolu al imam ahmad taksirul maamun daf ko daan ñaanal yàlla njub di di wax ne nangu naa ne mooy xalifatul muslimin léegi alimam ibni taymi rahimahullah lan la wax foofu mu ne foofu dalay firndeel ne la ak salaf dañ daan def différence entre di takfir ci jëf ak takfir ci def jëf mu ne loolu alimam ahmad appliqué na ko foofu ci façon bu leer mu ne kon ñenn ñi dellu ci waxu salaf di fa gis ñu naan jëf sàngam mbir sàngam ku ko def mbir sàngam ku ko wax yéefar nga nañu def ndànk ci bañ a jël loolu automatiquement rek nit wax ko wala mu def ko nga daal di koy takfir daal di koy yéefaral kon ñaar yooyu noonu am na ay ay ay ay écart yu bëri yu nekk ci seen diggante loolu masaayil yi nga xamante ni ci jamono ji gën na indi problème bokk na ci lu mel ne masalan al xukmu bi xayri ma anzal allah comme li ma doon wax lànk sànq ci aaya bi masala boobu li ci ëpp ci la ñuy faral di sukkandiku di takfir te ahlu sunnati wal jamaa duñu takfir rek ci masala boobu dañuy takfir naam ahlu sunna dañuy takfir ci wax di takfir ci jëf di takfir ci pas-pas mooy lu nit ki gëm di tak ci takkee ci chàkk muy sikki sàkk ñeent yooyu la ñu cité ne ñeent yi dañ ci takfir al wal wal wal qawlu wal i'tiqad wa shakk muy sikki sàkk ci loo xam nit ki waru ci am sikki sàkk mu sikki sàkk ci ñu takfir ko ci loolu mais loolu day nekk ne buñ ko waxee dañ naan jëf sàngam wala mbir sàngam ku ko def yéefar la wala ku ko wax yéefar la mu des ne bu nit ki defee loolu ñu xool ba xam loolu ñu wax ci moom mën naa mënees na ko appliquer wala mënees na ko appliquer kon yonent bi alayhi salatu bu waxee ne nit ki bu waxee mbokk jullitam ne ko yéefar la ñoom ñaar kenn jël na ko ci dañuy wax ne loolu bu fekkee daa gis ci moom mu def lu tax mu yaakaar ni yéefar la mu àtte moom yéefar loolu ijtihaad la léegi ijtihaad boobu bu fekkee da ndax dañuy wax ne moom kon léegi nekk na yéefar alimam ibni taymiya nee na déedéet ndax omar ibn alxataab loolu dal dal na ko ci xaatim xaatim bi nga xamante ni bi bind na benn lettre yónnee ko kuffaaru Quraysh pour wax leen ne yonent bi alayhi salatu mi ngi génn di ñëw ci ñoom bi ñu xamee ne jox na ko ndaw soosu bañ def ko nangu ko ci moom yonente bi alayhi salatu wasallam bi mu interpellé xaatib laaj ko daf ne ko dafa am foofu njaboot bañ ñu fitnaal ko moo tax mu leen doon def loolu ak yu mel noonu Omar ibn na daf ne yow yonente yàlla bi bàyyil ma dog loosu yéefar bi bàyyil ma dog loosu naafeq bi yonente bi alayhi lan la wax Omar daf ne ko ci ahlu badr la bokk te yàlla wax ne ahlu badr ne leen def leen lu leen soob jéggal naa leen xaafib badri la woon kon mënutul ne mënutul nekk yéefar te def na loolu Omar jàpp ne loolu mu def faral na ci moom kéeféer bu tax mu mun koo rey kon Omar atte na ci moom atte bi fan la ko Omar teg mooy li mu gis mu def ko Omar ijtihaadee ci déggee ci ne kon yéefar la léegi yonente bi wax na ne xaatib du yéefar kon Omar mooy yéefar dañ koy wax dañuy wax ne Omar du yéefar te pourtant yonente bi moo waxoon alayhi salatu wasalam ne bu nit ne mbokk julitam yéefar nga imma mbokk julitam doon ko wala mu doon ko léegi lan moo tax nit mu xew ci jamono yonente bi alayhi salatu wasalam te moom mi ko waxoon yéefaralul kañ ko wax yéefaralul ko ko wax loolu moo lay wan ne la kon texte yi boo dee jëflanteeg moom foog pour nga mën koo dégg foog pour nga mën cee génne ay atte nga am yeneen mbir yoo xam ne da nga koy bàyyiwaale xel lëkkale ko ak texte yi pour mën a atte atte bu jub mais boo dee yem rek ci firi ko li ñu la jox ci sens nga appliqué loolu chaque jour ay dégâts ngay def loolu kon nit ki na si bàyyi xel bu baax moo tax euh, ibnu daqiq al aid ci ihkaamul ahkaam bi ñuy charx xadisu abi dhar bi yonente bi alayhi salatu wasallam waxee ne nit bu waxee mbokk julitam ne yëfër la imma kooka nekk ko wala mu nekk ko ibnu daqiq dafa wax ne wa hada waidun azim liman akfara ahadan min almuslimina wa laysa kadalik mu ne li xupp bu rëy la ñeel ki nga xamante ne dafay yéefaral ab julit te nekkul yéefar mu ne wa hiya warqatun azimatun waqaa fiha xalqun kathiru min almutakallimina wa min almansubina ila sunnati wa ahli alhadith lamma ixtalafu fi alaqaidi fa galladu ala muxaalifihim wa xakamu bi kufrihim mu ne lii nag ab ndëgg sërëx la nee na benn njuumteeg la boo xamante ni bi ñu bëri ci nit ñoo xam dañuy ak askanewoo xam-xam moo xam xam-xamu xadis la wala xam-xamu pas-pas la mu ne tàbbi nañ ci njuumte loolu mooy njuumte wu yéexaral koo xamante ni ab jullit la mu ne ndax dañuy wuteeg ay nit ci ay masail daal di taral ca nañu wuteeg ñoom ba jàpp ne wute bi ñu wuteeg ñoom tax na ñooñu nekk ay yéefar ñu tàmbale di leen yéefaral loolu yaakaar naa ahlu sunna siñ ci gën a tey bokk nañ ci moo tax cheikh al islam di wax ne ali ibn abi talib bi mu xeexee xawaarij ak li ñuy réer réer yépp seenu ko réer yonente bi alayhi salatu moo ko wax ci xadis yeneen kuréel yi ci des doo gis kenn ci ñoom koo xam ne ab xadis wér na yonente bi alayhi salatu wasalam tudd ko xadis yi ñëw ci xawaarij yi wax seenu réer amul beneen kuréel boo xamante ne mel na noonu leere na noonu amul xadis yi ñuy wax ci alqadariya naan alqadariya ma joosi du amul benn xadis bu ci wér xadis yi wér ci xawaarij ay xadis yu nekk ci na la ànd ak li yonent bi alayhi salatu wasallam di wax ci ñoom banaan su ma jamononte woon ak ñoom dinaa leen rey comme na yàlla mbugalee woon aat dinaa leen rey rey bu mel noonu di wax ne ci ci ci xeex ak ñoom rey leen sax yàlla da koy bindal ay yool yu màgg a bu yonent bi alayhi salatu wasallam waxee ci ñoom wax ju jéggee ju jéggee dayoo noonu ju mel noonu ba wax ne yamruquuna min ad-din kama yamruqu sahmu min ar-ramiya dañuy daw di sori diine comme boo fittee ab fitt na muy demee sori fitt ba sori flèche mu ne ñoom noonu la ñuy soree diine bis bu nekk ànd ak loolu saxaaba yi xeexoon ak ñoom ñoom ali ibn abi talib takfiruñ leen ali dañ ko laaj ne ko alxawaarij akuffaarun hum qaala min al kufri qad farru dañ ko laaj ne ko xawaar yi ngay xeexal ndax ay yéefar lañ mu ci kéefar lañ daw jóge ñoo dugg ci lislaam kon du ma leen jàppe ay yéefar a munafiquuna hum qaala inna al munafiqina la yadkuruna allah illa qalila ñu ne ko ndax ay naafeq lañ mu ne naafeq yi duñ tudd yàlla duñ fàttaliku yàlla lu dul lu néew mu ne ko ñu ne ko kon fama hum kon lan lañ mu ne ixwaanuna bagaw alayna fa qaatalnaahum ala bagihim mu ne su suñuy mbokk julit lañ yu jégg dayoo suñu diggante ak ñoom ñu xeex ñoom ci kaw loolu loolu lañ tuddee xitaalu ahlul baxi xitaalu ahlul baxi mooy imaamul muslimin bu amee ay nit yu révol yu révolté wu rebelle wu contre autorité am xeex ak ñoom comme ni ko Aboubacar defee woon ak ñi ko bañoon a jox azaka Aboubacar ñetti kuréel la xeexal ñi nga xam ne ñoo weddi woon génn ci lislaam ak ñi nga xam ne ñoo bañoon a joxe azaka ñooñu duñu woon ay yéefar te dafa xeex ak ñoom pour loolu ñu neenal ci fonk l'islam ñu delloo si waat ko benn dëkk ci dëkku jullit yi sax bu bañoon ne dootul noddu dañuy julli rek te duñu noddu bu ñu amee imam boo xam ne moo imaamul muslimin dafay xeex ak ñoom bañ delloo si waat shaira boobu nga xam ne shaira diin la bokk beneen kuréel bi ci des moo ñu toppoon Musaylamatul kazzab kon Abubakar moo njëkk a xeex ak ñi nga xam ne ñoo rebellé wu contre benn ci yi nga xamante ni mooy yi yi jëmmal ak di taxawal l'islam kon Ali ibn Abi Talib noonu la jàppee woon noonu la xëy ñoom Cheikh l'islam nee na bu fekkente ni ñooñu nga xam ne seenuk réer bi alayhi salatu wasalaam moo ko atteel boppam mu leer ñoom la saxaaba yi xeexal te takfiruñu leen mu ne kon lan moo tax lan moo tax kuréel yi nga xamante ni bi ñoom ñooy wute ak di jàppante ci ay masail yoo xam ne lañ cey atte lépp ci istihaad la tegu lan moo tax ñuy yëfaralante ci seen biir mu ne seen ñàkk xam moo leen yóbbu ci lool seen ñàkk xam moo leen yóbbu ci ñu dem ba suñu wuteentee ci ay masaayil rek wala benn mbir boo xamante ni leerul ci wute moo ci am nga tàmbal di ci takfir te nit buy takfir dafa war takfir ci loo xam ne dañ caa dëppoo sikki sàkk amu ci mais masaayil yi nga xam ne ci la ñuy takfir boo dem da nga ciy fekk wuute boo xamante ni wuute bu yaatu la ba ci ayat yi nga xamante ni moom lañ doon jàng léegi ci alxukm bi gayri ma anzala allah alimamu shawkaani di wax ne i'lamu anna alxukma ala rajuli almuslimi bi xurujihi min diini alislam ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية من طريق جماعة من الصحابة أن من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما mu daal di wax ne wa hakaza fi saxix albuxaari wa fi lafdin axar fi saxihaini mu ne wa xayrihima man daa rajulan bil kufri aw qaala aduwa allah wa laysa kadalika illa xaara alayhi al imam Shawkaani dafay wax ci saylul jaraar di wax ne warul jaaduwul benn yoon ci ab jullit boo xamante ni gëm na yàlla gëm bésu pénc muy génne kenn ci lislaam lu dul ne da caa am firnde boo xamante ne bu leer la comme ni jant bi di leere ci bëccëgu ne rakkam mu ne ndax xadis yi nga xamante ni ñoom ñoo ñëw ci wane nit ki bu yéexaralee nit te nekkul yéexar ci moom lay dellu mu ne kon daf ci war a am burhaan moo def ci war a am firnde boo xamante ni bu leer naññ la loolu day feddal li ñu doon wax sànq ci alimam ibni taymi rahimahullah ay waxam day xaral di gudd moo tax du ma ko bëgg a liir li mu waxoon sànq ci ne xawaari ji bi ali ibn abi talib xeex ak ñoom nanguwu leen a yéefaral nanguwu leen a génn ci lislaam ànd ak la ñu def lépp ci daganal li nga xamante ni bi moom mooy deretu jullit ñi daganal deretu jullit ñi waaye loolu yëpp taxul woon mu génne leen ci lislaam dafa jàppoon ne dañoo réer dafa jàppoon ne seen ñàkk xam fa la leen seytaane jaaree ba sànq leen réeral leen waaye génnewu leen woon ci lislaam bunt bi nga xamante ni mooy buntu ak takfir dafa am benn masala boo xamante ni sabab yi nga xam ne ñoo ci faral di wax keroog toogoon nañ ci ak ñoom waxtaan ci ak ñoom ñu lànk bañ cee bañ bañ ñu cee déglu la nga xamante ni moom lañ ci doon wax mooy dafa am ay yoo xamante ni ci takfir lu jara a bàyyi xel la ndax bu fekkente nit ki da caa jum daanaka kenn dootul mucc ci takfiiram ku ne rek mën na laa takfiir ndax bu fekkee da nga ni takfiir boo koy def nit ki bu defee loo xam ne kéeféer la ñàkk xamam du nekk ngant ci moom loolu kon mooy buntu takfiir ubbeeku na ci sa ci ubbeeku win boo xam ne jéggi na dayoo ndax ñàkk xam nekk ngant ci lislaam loolu lu siiw la lu dëgër la loo xamante ni bu ko nit ki nanguwul ne nit ki bu fekkente ni xujjatullahi ma qaamat alayhi dafa am jahl jàngu alquran ak sunna àggul ci moom ba loolu waral mu def loo xamante ni waral na ci moom kéefir kooku ànd ak loolu yëpp dañuy àtt ci moom kéefir loolu bu fekkee nit ki noonu lay takfiree takfir boobu day daal di jéggi dayoo te li doon waxtaan loolu bokk na ci yi nga xamante ni mën naa wax ne moo ko moo ko laloon ñu jàng fa lu bëri ñoom ci ay textes yoo xamante ni neen dañ ciy dëgëral ne nit bu fekkente ni dafa def ak kéefër même bu xamule yéefër la loolu euh, ci jotaay yi nit ki dina jafe mu traité ko ak indi ay waxu borom xam-xam comme di sarb ay nusuus loolu du ko lijjanti ndax euh, texte yi nga xamante ni moom la nit ki di indi léeg-léeg boo toogee ak moom day gudd guddaay boo xam ne day laaj nit ki delluwaat ci téere ba nga xam ne fa ko borom téere bi waxee pour xam ci wax wax ji lan la bëgg a wax ci waxam mais du doy nga yem ci benn téere boo xam ne moo la tëkkaleel wax ci citeel la ci ñaari phrase wala ñetti bëgg la loo ni borom xam boobu li mu wax mooy nit bu defee kéefër même bu xamul ne li mu def kéefër la même bu xamul lan moo ci àtte yàlla yéefër lay doon exemple bu ndaw bi ma ci joxe mooy alimam ibnu ibnu ibnu alqayim rahimahullah ci tariqul hijratayni dafa am wax yoo xam dañ koo cité ko ci moom ci ne ñi nga xamante ne bi ñooy muqallidatu alkafara mooy kuffaar yi ñi nga xam ne ñooy seen tabaxatul muqallida mooy ñi nga xam ne ñooy toppandoo ci ñoom amuñu xam dañuy roy rek ñi nga xam ne ñooy seen njiit mu ne roy boobu ñu leen di roy du nekk ngànt ci tere leen a nekk ay yéefar seen kéefar borom xam yëpp a ci dëppoo kon ñàkk xam foofu nekkul ngànt ci ñoom pour ñu bañ leen a takfiir léegi nit sukkandiku ci loolu ne kon jullit ci nit bu fekkee dafa topp ay nit ci ñàkk xamam ba def loo xam ne kéefar la du am ngànt ci loolu mooy gis nga xiyaas boobu ñu def loolu mooy njuumte lu rëy ci ne takfiir koo xam ni ak jullit la ak takfiir koo xam ni du bokkuñu ndax alimam ibn alqayim bi mu continuer ci waxam ci tariqul hijratayni ci ci njeex ci njomboxtal la ci mujjantal ba wax na luy wane ne li muy wax moom attewu àdduna la concerné attewu àdduna ci yooyu muy wax lan la ci namm li mu ci namm mooy lenn loo xam ni fuqahaa shaafi'i ñenn ci ñoom dañ koy wax ci ne wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasulan yàlla def ne du mbugal li fekk yabalul yonent mooy kon bu texew tegewul ak xujjaam layam tegu ci nit ki ba li mu ko sant ak li war a nit ki war a xam li mu war a gëm mu xam ko yàlla du ko mbugal yàlla jëfandikoo baatu taabib muaddibin la wax léegi loolu bu dee ci yéefar bi nga xam ne dafa dund ci kéefér nekk ci dëkk boo xam ne xamul luy lislaam xamul luy diine ba faatu ci loolu lool du ko teree nekk ab yéefar loolu lañ tuddee al xukmu ak dunyawi muy attewu àdduna mooy ñun ay ay ab yéefar lañ koy jàppee duñ ko mës a jàppee jullit ndax am na ngant mais wax ji mi ngi nekk ci attewu alaxira attewu àllaaxira bi nag foofu la alimam ibnu qayyim waxee ne ñooñu kenn du wax ne yàlla da leen di mbugal comme ni muy mbugalee yéefar yi nga xam ne dañoo xam ba noppi lànk mu ne ndax ñooñu dañuy dugg ci xadis bi nga xam ne moo ñëw ci ñi ñu tuddee ahlul fatra ahlul fatra mooy ñi dund ci jamono joo xam ne yàlla yabalul yonent te amul ci nit wootewu ab yonent boo xam ne àgg na ci ñoom ñooñu ak ku dund ci jamono walam tablugu daawatu nabi sallallahu alayhi wa sallam ku dund ci jamono te wootewu yonent ba alayhi salatu wasalam ci moom te keroog ma jàngoon xadisu walladi nafsi bi yadihi la yasmau bi ahadin min hadihi l umma yahudi wala nasrani way summa yamutu walam yumin billadi buistu bihi illa kaana min ahli naar wala illa daxala naar muy xadis nekk saxi muslim yonente bi alayhi salatu wasalam wax ne képp koo xamante ni ku jamonoonte ak wooteem nga mooy depuis bi ko yàlla yebalee ba keroog yàlla di jële di fi jële di fi jële alquran ak sunna mooy bu ñu demee bu si penc di waaj a ñëw kon ku jamonoonte ak wooteem rek ci umma boobu nga dugg moo tax mu ne min haadihi l umma mooy ummatu daawa nga dégg wooteem yasmau bii la wax keroog dama ci teg ne yasmau bii mooy xaqiqatan yasmau bi xaqiqati mooy nga dégg ko déggin bu leer mu dikkal la nga dégg woote l'islam ñu posé la ko bokkul ak yéefar bi nga xam ne dafa nekk fële xamul luy l'islam nekk ci église am benn euh, kàngaam ci kàngaamu diineem taxaw fa naan ko l'islam mooy terrorisme l'islam mooy rend nit ñi l'islam mooy nangam loolu rek la xam ci l'islam kooku kon dégg na l'islam waaye déggul xaqiqatul islam ndax li dégg l'islam bu ñu yàq la kenn mënu ko jugé ci loolu ne kon attewu yàlla tegu na ci kawam layu yàlla tegu na ci kawam maa ànd ak ne dégg na l'islam kon samia bi mooy samia bi xaqiqat yi te loolu Cheikh Nasiruddin Albani mi ngi koy wax ci benn kasetam di wax ne loola bar jar na bàyyi xel ci ne nit ki nga xam ne dañ ko endoctriné transmettre ko l'islam ci façon boo xamante ni bu baaxul la bu erroné la kenn du wax ne samia bi nabi sallallahu alayhi wa sallam kon qaamat alayhi hujjatullah kon layu yàlla tegu na ci kawam léegi alimaam ibnul qayim leeral foofu ne kon nit ki bu fekkente ni wootewu lislaam boobu àggul ci moom uxiya ilaya hada alquranu li undirakum bihi wa man balag li ñu wax ne kullu man balagahu alquran faqad ka faka annama andarahu rasulullah aw faqad andarahu rasulullah képp koo xam ne alquran àgg na ci yow yonent bi alayhi salatu wasallam waar na la mooy alquran àgg na ci yow nga xam ko wala nga mun koo xam ndax wa ma arsalna min rasulin illa bi lisaani qawmihi li yubayina lahum mooy dafa dafa rabt bayna fahmul lisaan ak albayaan mooy ne la albayaan la yatimu illa bi fahmil lisaan kon ida jaa risala aw jaat risala bi lugatin la nafhamuha la yaxsulul bayaan mooy leeral bi yàlla wax daf ne day yebal yonent ci ay nit ca la ñu xam la ñu dégg kàllaama ba ñu dégg ngir mu leeralal leen mooy kon leeral du mën a am bu fekkee dégguñu li ñuy wax ci alquran ñëw xamul lu alquran di wax nga ne ko kon mujarradu ne alquran ñëw na ca dëkk ba nga nekk mooy xujjawu yàlla taxaw na ci sa kaw xam nga ko xamuloo ko mën nga koo xam mënuloo koo xam loolu yitteeluñ ci genre généralisé généralité yu man noonu loolu mooy tàbbandiku ci njuumte ci wàllu tafsir al imam ibn al qayyim kon wax indi xadis boobu nga xam ne mooy xadisu ahlil fatra mooy xadisul imtixaan ci wane ne ñooñu dañ leen di imtixaan mooy yàlla daf leen di yabal ne dem leen ngeen dugg safara mooy ki nga xamante ne dafa faatu fekk ne jamononteewul ak wootewu yonent ahlul fatra li sëtaan ci ñoom mooy xadis boobu te al imam ibnu kathir rahimahullah taqriraat na lool ci tafsiram bi bi muy tafsir ayatul isra wa ma kunna muazibina hatta nabaata rasula mu leeral ne ñooñu nga xam ne ñoo faatu ci fatara ak ki nga xam ne dafa tàggale woo xelam ak ki nga xam ne dafa faatu fekk mu nekk ndaw ak ki nga xam ne dafa màgget ba ta dégg mun munta xam ne nit ñi di wax ñooñu bu ñu faatoo dañuy dem taxaw ci kanamu borom bi di lay di wax ne ñun am nañ ngant yàlla ne leen comme noonu la demee dem leen ngeen dugg safara foofu la leen di imtixaane bari imaam ibn abdul di wax ne yawmal qiyaam alaxira kenn du fa nattu kenn ndax àdduna mooy kërug nattu foofu kërug fay la alimam ibn ibn taym ibn alqayim rahimahullah di tontu loolu di wax ne naam ci d'une manière générale alaxira du pour éprouver nit ki du pour nattu nit ki waaye terewul ne am na yenn ci xeetu nattu yu fa mën a am ndax yawma yukshafu an saaqin wa yud'awna ila sujudi fala yastati'un yud'awna ila sujud loolu amr la ndax dañuy taxaw di xaar seen borom ñu ne lu ngeen koy xamee ñu ne as-saaqu saaq fa yakshifu llahu fa yakshifu al-jabbar an saaqihi wa yu'maruna bis-sujud képp ku daan sujjoot ci àdduna ngir ndax ngëm yàlla nga sujjootal borom bi ñi daan ndax ngis ngistal mooy naa munaafiqoon yi xaqiqatan ndax ngistal foofu li mu ci namm mooy loolu mooy seen diine nekkul koo xam ne day tàbbi léeg-léeg ci ngistal rek mooy ñi nga xam ne seen diine lépp ngistal la mooy ñi gëmul yàlla koo xam ne nifaaqam nifaaq aqadi la mooy li mu waxoon ne innal munafiqina la la la yuxaadiuuna allah la mu wax mudabdabina bayna dalik la ila haula wala ila haula ak leen la ci teg mu ne wa ida qaamu ila salaati qaamu kusala yuraauuna annaas wala yadkuruuna allaha illa illa qalila kon yuraauuna annaas foofu riya boobu loolu mooy loolu mooy seen fondement wu diine ñoom naafiq yi li ñuy jëf nammuñ ci yàlla li ñuy jëf lépp riya boobu lañ ci namm ak ñi nga xam ne ñoo weddi yàlla ñu lànk nga xam ne ñoo lànkoon bañ a sujjóot ñooñu dañuy taxaw mel na comme benn mur bu ñu tabax suñu mën a sujjóot loolu mooy li mu wax ne yow ma yukshafu an saaqin wa yudawna ila sujud fala yastatiun kon foofu dinañ fa digal ay nit ñu sujjóot te duñ mën a sujjóot mu ne loolu imtixaan la te lu sax la ci alquran sax ci sunna mu ne kon ibne abdul bar bu mu dàq ne imtixaan ci arasatul qiyama bokk na ci imtixaan yi fay am mooy ñooñu nga xam ne ñoo am ngànt dañ leen di imtixaan te bokk na ci ñoom koo xam ne daawatu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam àggul ci moom ci benn sabab bu mu mën a doon alayhi salatu wasalaam moo xam dafa tàqale ko ak xelam ndax boo ne nit ki bu xamulee bu nekkee jaahil dafay du du am ngànt ci loolu bu nekkee jaahil du am ngant te alimaam ibn qayyim rahimahullah leer leeral na ci yi nga xamante ne ci leen ki di amee ngant ci ñetti façon jaahil yi dinañ ci ñëw ci kanam insha allahu taala bu jëree ñu liir waxam ñu liir ko boole nit ki bu fekkee bu bu amee ngant boo xam ne du sababu gàttañ loom moo jur ngant li waaye ngant li mooy xamul te ta xam nga ne kooku amul amul ngant du ko teree tàbbi safara du ko ne teree nekk yéeféer même bu fekkonte ne jullit woon li muy tekki mooy kon nit ki bu dofee te dof bi nekkul ne moom moo ko moo ko moo ko teg boppam dafa dof kon tamit du am ngant ndax seen i usul benn la ñoom ñëpp seen i usul seen i usul benn la bu fekkente ni nit ki nanguwul loolu kon boo duggee ci buntu ne nit ki munta am ngant ci lu mu xamul bu fekkente ni def na kéefér te xamul defuloo tax si ndax dafa mun munta xam moo tax xamul wala mën naa xam waaye moo bëggul a xam boo dugul ci def tafasil yu mel noonu waaye nga tàmbali di tafsir tafsir mujmal tafsir mutlaq bu boobaa mooy kenn dootul def ci sa kanam di nga tafsir ba tafsir ko warul tafsir ndax xataa saxaaba yi am na ci ñoom ñu def loo xam ni waroon na mën a nekk kéefar te kenn tafsiru leen ci xataa saxaabatu rasulillah ànd nañu ak yonent bi alayhi salatu wasalam gis gaa yi am seen eh, benn garab boo xam ne dañ koy jaamu di ko màggal di fa samp di fa lonk seen i jaasi ak seen i ngànnaay biñ dajeeg biñ ànd ak yonente bi alayhi salaam lan lañ ko wax ij'al lana zaata anwaatin kama lahum zaatu anwaat defal ñu ñun tamit ñu am garab gu mel ni comme ni ko yéefar yi amee mu ne mu ne mu la sunan mu ne lii ay ay yoon la rek yoo xam ne ñi jiitu dañ koy jël ñi ñëw seen ginnaaw di leen ci toppandoo a ngi toppandoo ñi nga xam ne ci kéefër lañ nekk comme ni nga xamante ni Moussa bi mu ànd ak xeetam ñu romb ay nit ñu yor ak yàlla di ko jaamu ñu ne Moussa utal ñu yàlla comme ni ko ñuy amee mu ne yéen itam noonu ngeen ko defee léegi foofu ñenn dañuy wax ne loolu saxaaba yi def du kéefër ndax jotuñoo jaamu xërëm waaye jëmmi sàkku bi ñu ko sàkku rek jëmmi jëf jooju kéefër la ndax nit bu bu sàkkoo kéefër ne nañ ko ko defal accepté ko ne da koy def loolu mooy li mu def kéefër la mooy jëmmi aqida bi rek intiqaad bi nit am ci loolu loolu ci boppam kéefër la te yonente bi alayhi salatu wasalam seen ñàkk xam moo tax taksiru leen ne leen li ngeen def kéefër nit ñëw na ci moom ne ko macha allahu wa shita mu ne ko ajaaltani lillahi niddan ndax da may def ma nekk ab bokkaale ñeel yàlla te takfirul waa ji ne ko tuubaatal nekk jullit ndax li nga def kéeféer la te dafa xam ne ñàkk xamam moo tax mu def mu def loolu ak li yonente bi alayhi salatu wasalam waxoon ci xadi bu dee ci njuumte ñu wax par exemple njuumte yi cheikhul islam di tudd lu mel ne abdullah ibn masud far bi mu bi rabbil fala ak qul aoudu bi rabbil nas di ko effacé bi ndax dafa jàppoon ne du ñaari saaru alquran ndax da ngay ndax da ngay wax ne loolu maalumun min ad diini bi darura nit mënu ci am gànt pourtant bi muy def loolu saxaaba yi ñu ngi dund te dañ koo ngantal ci loolu kenn takfiru ko ci ndax imaam la borom xam-xam la mais dafa juum ci loolu kon loolu mooy wane ne moo xam wàllu pas-pas la wàllu jëf la nit mën na caa juum ñu ngantal ko waaye boo ñëwee di généraliser di wax ne ku def rek kéefar gi day tàbbi sa ko loolu xayru saxiix ahlu sunna duñu takfir ci façon boobu moo tax limaamu zahabi di wax ne bu fekkonte ni képp ku juum ci suñuy borom yi xam-xam ak suñuy kilifa ñu takfir la ñu tafsiq la wala ñu tabdiix la mun a kenn du mucc loolu lay wax ci siiru alaamin nubala mu ne kon kenn du mucc ci borom xam-xam yi ci ay ma yi nga xam ne ay matu salaf mais dañ daan daan utal ay uzur ci yim ci yim ci tudd ci azaar yooyu bokk na ci lu mel ne alimaam ibnu Hibbaan loo xamante ne abu Ismail euh, wala boog abu Ibrahim al Ismaili wax na ko toxal euh, di ko wax ne al imaam ibnu Hibbaan euh, dañ koo génne woon Sijistaan ndax dafa waxoon ne an nubuwatul ilmu wal amal dafa waxoon ne ak yónneent daal mooy xam-xam ak jëf bi mu waxee loolu nit ñi déggee ci ne kon dafa bëgg a wax ne képp ku boole xam-xam ak jëf yonent gaa yi daal di koy takfir ne zindiq la mooy ku génn ci lislaam la wax ko buur ba fa nekkoon buur bi bind ne buñ ko jotee nañ ko rey mu laa ko tuddi ibnu nga xam ne téeréem bi tuddee as saxiix ci téere yi borom xam ne di dellu tey ci jamono ci jàng xadis bokk na moo bind ak siqaat bind ak duafa wal mal matrukin kon li li may li may wane rek mooy takfir nañ koo xam ne bokk na ci borom xam ne sunna yi nga xam ne dañuy dellu ci ay téeréem ba muy daw di naaxatu ji zahabi bi mu ñëwee daf ne li mu wax bu ko waxul woon moo gënoon ci moom mu bañoon ko wax ndax baat bu lënt la waaye nag mënees na ko cee bañ a takfir ndax mënees na koo déggee nu baax mu ne niñ ko mën a déggee mooy li yonente bi alayhi salatu wasallam waxoon ne al hajju arafa ne aj daal mooy arafa aj mooy arafa nee bi muy wax naan aj aj mooy arafa tekkiwul ne aj mooy rek nga dem taxaw arafa aj ji waaye dafa bëgg a wax ne ponk yi gën a am solo ci ponk yi aj mooy nga taxaw arafa kii tamit dafa la bëgg a wan ne la ak yonent bi yàlla di yebal nit ñi li ci gën a am solo ci li ñuy indi mooy xam-xam bu leer ak jëf loolu la ci bëgg a leer la mais bëggul wane ne ci boole xam-xam ak jëf daal di lay nekk ab yonent alimaamu zahabi daal di koy layelee lu mel noonu lool lim lay wan mooy takfir nekkul lu yomb loo xam ni borom xam ahlu sunna wala ahlu sunna ci boppam dañuy ñëw rek tàmbali ji di ci tàbbi moo xam ñi ñuy takfir ay ulama lañ wala ay xokkaam lañ wala nekkuñu ulama nekkuñu xokkaam am beneen qaayida boo xamante ni ci xawaayid yooyu ba léegi ci loolu pour euh, delluwaat ci loolu ci benn benn benn benn nu mu tuddati muy xadiisu al euh, saaxibul wasiya al wasiyati al jaaira muy dañ doon wax ci xadiisu waajoo yi nga xamante ni bi moom moo waxoon njabootam ne leen bu fekkente ni faatu na nañ ko lakk buñ ko lakkee nañ jël benn xaaj bi ñu ñu jëri ko ci géej gi benn xaaj bi ñu jëri ko ci suuf si ndax bu yàlla amee ci moom kàttan dina ko mbugal mbugal mu tar alimaam ibn taymi rahimahullah ne bi sikki sàkk na ci kàttan gu yàlla mën a am ci moom pour dekkal ko te taxu ko nekk yéefar ndax yàlla buñ ko defee loolu ba noppi day wax euh, doomu taal bi nga xam ne nekkoon na ko yàlla danaan doom bi nekkaatal diw mu nekkaat diw mu taxaw ci kanamu yàlla yàlla ne ko yow sama jaam li nga def lan moo la ci yóbbu mu ne ko xanaa ragal la yaakaar ne su ma ko defee dinaa rëcc ci yow mu ne ko demal jéggal naa la mu ne ci yàlla jéggal na ko ànd li mu li mu façon ci yàlla jàpp yàlla amul kàttan ci mën koo dekkal te pas-pas boobu ku ko am ci yàlla yéefar nga waaye lan moo ko ci yóbbu ñàkk xam loolu alimam ibn taymi rahimahullah neen loolu day wane nit ki dina juum ci ñàkk xamam def loo xam ne kéefër la ñu ngàntal ko ci te loolu boo ko waxee yenn sabab yi li ñu lay wax parce que loolu lañu liir ci yenn téere yi nga xamante nañ koy liir te yenn takfir yu ni di ko bind lu mel ne masalan ak ak ak tabiyin wal idah wala boog al idah wa tabiyin fi anna faa'il al kufri jahlan laysa min al muslimin bu dangereux mi ngi noonu te shabaab yi takfir jamono ji moom lañ yor li ñuy wax lu ci bëri ci ay texte di ko di ko tuxal di ko jële ci borom xam-xam yi delluwuñ ci téere borom xam yi nga xam ne fa lañ ko waxee pour comprendre borom xam-xam bi li mu wax ak liir waxam ba mu àgg ndax borom xam boo koy liiral dafa am solo nga liir waxam ci début bi ba mu jeex pour xam li muy wax lépp pour mën a dajale cat ak cat bopp ak bopp ak digg nga comprendre mais bu dee waa la boo xam ne li ko yitteel rek mooy takfir nit ñi moom day dem di la coqatil seen i bu wax loo xam ni da ngay yaakaar ne bu ñu doon daaneel asamaan sax borom moom bi dafay takfiraate te bokk na ci lii tax nit xam ne kii bind téere bi fi mu bëgg a jëmale waxu borom xam-xam bi jëmul foofu mooy yow boo jàngee dund borom xam boobu xam ko xam la mu nekkoon di nga xam ne moom daawul takfir nit ñi takfir boobu kon naka nga mën a déggee ci waxam loo xam ne dëppoowul ak li ñu xamee ci moom masalan naka nga mën a cité ku mel ne Ibn Baz ci takfir jamaatul muslimin Ibn Baaz ndax daf daan takfir euh, mujtama société jullit yi da daan daan léegi koo xam day takfir jullit yi ba pare bëgg di sukkandiku ci wax Ibn Baaz loolu mën na nekk mënul nekk parce que yaa ngi bëgg a jëfee ci ibnu waxu Ibn Baaz loo xam ne moom daawul def loolu te moom mënoo ko gën a dégg waxam loolu moom moo leen dal ci ne Ibn Taymiya mënoo jël waxam di ci takfir Ibn Taymiya bu doon day takfir kon dina takfir ba takfir ñoo xamante ni waroon wa da koy fekk mu leen di tudd ci ay téeréem mel ne ay masalan Junayd Junayd dafa nga xam ne ku ne na ko ci tasawuf ak yi mu daan wax ci tasawuf ci euh, al wujud ak yooyu laal gum ci laal ibn ibn Taymiya da di wax ci moom ay wax yoo xamante ne day wane ne moo gën a modéré Ibn Arabi ak Hallaj di di wax tamit ci ku mel ne al Abdul Qadir al Jaylani di rafetlu ni mu nekkoon ku xër ci ci défendre diine ak euh, firange bi amoon ci diine donte laaloon na ci tasawuf ak yu mel noonu loolu dalay wan ne la boo ñëwee bëgg a jël ak ay waxam bëgg di takfir jamaatul muslimin muy mujtamaat yi di société wu jullit ñi te moom xamuñu woon loolu ci siiraam xamuñu ko ci dundam yaa ngi déggee waxam lu bokkul ak la nga xamante ni moom lañ xamoon ci moom kon loolu na ci yenn sabab yi faral di yor genre téere yooyu def ndànk mooy bul di topp di naq la ci ay téere rek te doo delluwaat ci téeru borom xam-xam bi ndax ñooñu ngay dellu ci ñoom ñu lay toxalal chaque fois dañ lay tabbal loo xamante ne ay njuumte la kon buntu boobu nga xamante ni mooy buntu takfir ñi nga xamante ni ñooy jamaatul muslimin ci façon ne amu amuñu ngant ndax mënuñoo ñàkk xam seen diine dañuy wax ne ñàkk xam diine day delluwaat ci jamono delluwaat tamit ci dëkk léegi nag benn dëkk comme lu mel ne masalan ci daru taarudul aql wa naql ibnu taymiya dafa wax ne féetal yàlla ci kaw dafa bokk ci masaayil yi nga xam ne asalaf dañ ci takfir koo xam ne dafa lànk ne yàlla féetewul ci kaw arash ndax masala bi maalum min ad din b darura la mooy loo xam nit mënta nekk jullit ba pare ñàkk koo xam léegi est-ce que Sénégal mën nga fi wax ne masalatu istiwaullahi ala arshihi ittifaaqullahi bil ulu maalum min ad-din bi darura la est-ce que Sénégal mën nga fi taxaw nga wax ne masala boobu nit mën ta nekk jullit te xamu ko ahlu sunna yi sax kon liñ ci takfir soo moytuwul waaw loolu lim lay woon mooy léeg-léeg dëkk àgg ci xam-xam wala jamono àgg ci xam-xam koo xam ne masala nit ki mënu ko ñàkk xam bu ko ñàkkee xam rek moo gàttañ lu ndax xam-xam ni mu leeree xam-xam ni mu fësee ak borom xam-xam ni mu fi nekkee nga dem ci dëkk xam-xam néew fa doole ba néew doole boo xamante ni yi gën a élémentaire ci diine nit mën na ko faa ñàkk xam kon dafa nekk lu relatif kon boo demee ci as salaf ñiy wax léeg-léeg ci yenn ci masaayil di wax ne maalum min ad-din bi darura la da ngay bàyyi xel seen jamono bàyyi xel dëkk yi ñu dëkkoon ne ñun dëkkuñu ci dëkk yu mel noonu nekkuñu ci jamono ju mel noonu ñun jamono lañ doon yoo xam ne dinañ dem ba li yonente bi wax ne dinañ dem ba nit ñi àgg ci da ngay juddu yor lu jullit naan ñun day ak dese kalimatu laa ilaha illa di wax ne kaddu la boo xam ni dañ daan fekk suñuy bàyyi ak suñu maam ñu koy wax ñu tamit ñu koy wax nee na lislaam dina dem bàgg foofu allah allah yéen tamit xam dañ ko tekkee laa ilaha illa allah loolu moo tax sax ñu ñu inkaar nga xamante ne bi ñooy al mutasawifa eh, ñuy def di wax ne allah allah mooy al lafdul mufrad muy laa ilaha illa allah rek moo fi mujj def ci nii ñu koy wax te ay jullit la ñu doon yoo xam loolu la ñuy defee ci lislaam di wax ne kàddu guñ daan fekk suñu maam di ko wax mooy ne l'islam bi day dellu ginnaaw di gën di néew doole ci nit xam-xam bi di gën di ruus dina dem ba wi nit ki mënta woon a ñàkk xam di ko ñàkk xam ci diinam te yaakaar ni kenn gënu koo nekk jullit voilà yow mi koy jéem a yéefaral sax soo moytul moom mu yéefaral la kon yaakaar naa li solution mbir mi du nekk fi di yéefaral ñooñu ak xaala boobu ñu nekk yërëm leen am ci ñoom ñeewant jéem a bay sa làkk def lu tax l'islam bu leer delluwaat ci ñoom moo gën toog ci leen yéefara ndax loolu du solutionné problème ay problème lay yokk ndax boo leen taksiree da nga taksir sa bàyyi taksir sa ndey taksir sa mag taksir sa rak te boo leen taksiree léegi lan la l'islam warlu sa digganteeg ñoom bu li l'islam warlu sa digganteeg ñoom boo ko defee moom àdduna tut voilà léegi beneen mbir bi ci des mooy boo ne di dëkk bi ay ay yéefar lañ ba ni sax ku fi nekk da nga war a hijra génn réew mi wala nga jël sa sa sa jaasi jàll di tàmbale jihad loolu muskila la loolu muskila la fan nga jëm fan ngay hijra jëm ci àdduna bi fan noo hijra bi yëpp boo gisee ñuy wax naar wax yooyu c'est parce que dafa am ñu nekk fële taxaw fa benn xilaafa boo xam ne nañ xilaafa boo fële ñëpp war a dem tey mooy xilaafa gi waaye gars yi wax ci diggante Cham ak Iraq te benn mbokk yow may bind benn lettre bon benn message la ma yónnee xaw ma moo ko bind wala ci internet bi na ko jël ndax gars yi dañu jël ci internet bi rek di ne ko jullit ñi war amee ak yooyu fayit léegi man lay yónnee ne jullit ñi dañoo war a am xilaafa xilaafa nangam sàngam euh, man maa war a contraire ñu waroon am parce que man lu bon bon quand am na lu ma jàng ci alxilaafa bi ñu naan sax benn muzakkira ci alxilaafa surutul xilaafaat naka la ñuy taxawalee xilaafa kan moo war a nekk xalifa kan moo ko war a fal ak ci yan yoon lay xalifa xilaafa di jaar ak atem ci l'islam man def naa ci ay muhaadara def naa ci ay durus bind man bindatuma ko man di ko fàttali loolu moom mu bind ma ko bind dara di ma ko wax te li ma xam ne loolu la jublu ci xilaafa boobu mooy xilaafa bi ñu wax ne taxawal nañ ko fële ci Iraq ci xilaafa ñu ci war a xam bi ba yi waxee ne mooy ñi ñu tuddee chia yi seen aima yi ñoom ñooy xulafaa yi cheikh al islam ci minhaju sunna bi mu leen di dàgg sante ak ñoom bokk na ci li mu leen wax mooy ne xilaafa laa takunu illa bi sulta wal quwa mooy ne xilaafa bu ñu ko waxee kàttan moo koy imposé du luñ ci di revendiquer rek di ko proclamer wu maa war nekk xalifa boo waree nekk xalifa te nit ñi joxuñ la autorité bi nga yor ko yore yore force bi nit ñi nangu la déggal la say say ndigal di dem say ndigal di dox nekk nekkuloo xalifa mu ne yéen bu ngeen toogee wax ne seen i aïmma ñoo war a nekk xalifa seen i aïmma ginnaaw xasan ibn ali ibn abi talib kenn si ñoom jullit ñi defuñu ko xalifa kenn lañ ci woowoon iraq di jéem a jaayante ak moom mooy al xusayn te dañ ko mujj fat ci woon bi ñeneen ñi ci des ñépp ba bi ngeen di àgg ci ki ngeen di tuddee al mahdi al muntazar kenn si ñoom jullit ñi defuñ ko xalifa te xalifa ci làkk arab ak ci l'islam yépp buñ ko waxee mooy koo xam ni nit ñi dañoo jaayanteeg yow dégg la jox la nga am autorité ci ñoom fay léegi yow boo nekkee Irak ak Syrie dafa xeex daal di jël ay dëkk ne taxawal nga sa xilaafa ne xilaafa gi yemul fii mais xilaafa international la léegi loolu qu'est-ce que ça veut dire li muy tekki mooy kon sa kàttan léegi ak sa autorité ci dëkku jullit ñépp ci àdduna bi mooy kon léegi jullit yi ci àdduna bi yépp yow ci sa suufu autorité lañ nekk te loolu xeyru saxiix parce que yow mënuloo Sénégal tey est ce que ñoom mën nañ fi iqaamatu xadd ku zina ku fi njëkkoon nekk nga fi xalifa boo fi nekkoon xalifa ku fi zina da koy mën a iqaamatul xadd mais mënoo fi iqaamatul xadd kenn kon tey mooy nekkoo fi xalifa kon julit bi nekk Sénégal mënoo ko wax ne ci sa xilaafa la nekk bu hijra woon nag ñëw fekk la fa nga nekk nga ne boobaa sa xalifa la xalifaam nga waaye mënuloo toog fële di autoproclamer di wax ne yow yaay xalifa wu àdduna bi yëpp loolu mënul nekk loolu yaa ngi koy am ci ko instauré ci ñoom suuf yi nga xam ne yaa koy gouverner yore ko ku fa nekk nga ni la mais dem ci ay dëkk nekk fa woote woote faak sa benn waaye jaayanteeg moom ci say askar yu la di wax ne loolu mooy delloosiwaat xilaafatul muslimina ci alamul islam loolu xayru la ñeen di lire ci ci ci internet di la ci sonal di ci la ko yónnee loolu yëpp ci lu ñuy delloowaat mooy dan toll ci jamono joo xam ne koo xam ne yitte woowaatu sa sa diine nga seey njàng njàng moo xam ne njàng mu xóot njàng mu dal njàng mu ñor la mu la mën a togg def ci yow benn xikma bi ak benn xóotu gis-gis bi wallahi da ngay réer da ngay mooy li yonente bi alayhi salatu wasallam ci fitan nga xamante ni ka qita'i layl mudlim yusbihu rajul muminan wa yumsi kafiran wa yumsi muminan li mu waxoon ci jamono ji ñuy dem ba fitna yoo xam day lëndëm lëndëm lëndëm comme guddi ku lëndëm ñun fukk nit ki dina xëy ngëm yàllaam balaa ngoon mu ñàkk ngëm yàllaam ngoon mu nekk ku gëm yàlla balaa bët set mu ñàkk ngëm yàllaam ci jamono jooju lañ toll ahlu sunna gars yi bàyyiwuñ leen ak seen jàmm fitna yi dellu si waat ci bay na ahlu sunna yëpp li koy gën a alimenté bokk na ci mooy li ci des ak néew ci yoonu alxuraan ak sunna lañ bëgg a yàq pour jullit ñi bañ a amati l'islam bu wér boo xam ne dina mën a def paas occidentaux yi ni ñu bëgg a nootee àdduna bi doxal ci li leen neex jëmale ko fi leen neex léegi nag loolu pour ñu mën ko def li fi des ci alquran ak sunna nañ ko tas nañ ko yàq ci ay façon woote ak ay façon doxalin yoo xamante nii defarul dafay yàq te ñi koy def boo léeg-léeg seetloo seen mbir bu baax pour nga ne ñii dañuy defar yow ci te poses des questions ndax doo tuumaal kenn naam mais léeg-léeg sax sa xel dafay ñaaw ndax nit koo xam ni boo ko waxee ne ko xam nga bu ñu waxee taxyirul mën yonente bi alayhi salaam lan la waxoon man raa minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' la wax rasulullah mi nga xam ne moom la yàlla yebal moo ne la fa in lam yastati' léegi istitaa boobu lan lay tekki istitaa boobu mooy mënoo koo dindi mu jëral lislaam lam bëggoon loolu lay tekki mënoo koo dindi mu jëral lislaam lam bëggoon tekkiwul ne mënuma fekk ci nekk ci baar bi ma dem toj sàngara bi muy naan xeex ak moom tekkiwul lool de l'islam ñaw la boo mënul def loolu bul bul bul ko def l'islam waxu na boo mënul def li lislaam li mu la mën a wax li mu la wax mooy boo mënta soppi ñaawteef bi mu jur njàmm jur baax li muy teg kon mooy mënuloo bul def lislaam loolu la ci nam léegi nag loolu mooy adamul istitaa bi ñu war a dégg ci lislaam mooy ne kon moo xam ci jihaad la wala sibaabul amri bil maaruf li dafay delluwaat ci istitaatul muslimin moo tax bokk na ci yi nga xamante ni wax xam wax nañ fekk alimaamu Shawkaani wax ko ci abwaabul jihaad bokk na ci tolluwaay nga xam bu ñu fa tollee jihaad daf ñuy wàcc mooy boo jàppee ni boo songee yéefari ñu faagaagal la bu boobaa lislaam daf lay tere ngay dal ci seen kaw di déclarer jihaad sa digganteeg ñoom bu dee ñoom nag ñoo la songu nga défendre sa bopp sa kéemtalaay kàttan mais loolu jihaadu difaa la tudd am na ay atte boppam yoo xam ne bokkul ak parce que léegi tey suñu jamono mooy gars yi dañu mélanger les deux à la fois jihaadu talab ak jihaadu difaa lañu jël yëpp boole ko ci benn sart dootoo xam jihaad ban ban xeetu jihaad la te alors que ñaari jihaad yooyu bokkuñu même ci jamono yonente bi alayhi salatu kon bu fekkente dañ dañ nekk ci jamono ji man ma mën a nasiha ku ma ku may ndax du ma fi wax loo xam ne ñii jiitu woon ci ay borom xam-xam waxuñu Cheikh Nasruddin Albani dafa bind benn téere tuddee ko fitnatu takfir muy téere boo xam ne maa ngi am yéene traduire ko ci ay kaset xëy na du ñàkk abu dina ma ci jàppale pour wane ne li ñuy joytu nii borom moo xam yooyu jiitu nañ ci joytu ko ba pare mu wax ci fitnatu takfir ak li mu jural ay ndaw nangootuñu déglu déggal borom xam-xam man waxu su may wax borom xam chaque fois dama ci génne sam bopp ak ku mel ne man li ma ci nam mooy ñoom ñi toll ci niveau boobu muy jooytu loolu di jooytu yenn sabab yi nga xam mutaxammisuun nanguwuñ tënku ci xam-xam tàmbali di takfir benn takfir bi mu wax ci wax yu am solo Cheikh Ibn Baz dégg téere tamit bind ci benn commentaire bu am solo dolli ko ci Ibn Usaymin déggaat téere bi bindaat ci benn commentaire bu am solo ñoom ñett ñooñu seen wax yooyu ñu boole ko def ko benn téere bu tudd fitnatu takfir te pourtant suñuy delluwaay lañ boo ko jàngee day mel na liy dund suñu jamono ji moom lañ gisoon di ko wax moo tax téere boobu ma yéene woon traduire ko def ko ci ay kaset amaana ñiy woot ñiy wax ci tafsir boobu dinañ dégg waxu ñooñu bu fekkee nanguñ dégg sama wax wala waxu keneen dinañ dégg waxu ñooñu amaana amaana laa wax ndax xam naa daf may wax amaana réserve boobu waaw ndax dama waxoon benn mbokk ci ñoom ne ko ci tafsir borom xam-xam yooyu ngeen jëm ndax li tax mooy xam naa ne mu tafsirun yi mat yi nekk ci àdduna bi dañuy tafsir ñooñu te li la koy firndeel mooy boo demee ci seen forum ci internet bi ulama u saoudia dañ leen di tafsir di wane na ñoom ñoo jàppale xukmu bi fa nekk te nekk du xukmu bi ma anzalallah taaxut la ñoom dañuy wax ne saoudiya taaxut moo fa nekk kon ba xam yi fa nekk jaayoonteeg buur ba fa nekk jàpp ne la fa nekk alxuraan sunna ñoom tam ay kuffaar lañ waaw léegi bu fekkee da nga takfir xukmu xukmu euh, Arabie Saoudite te man nekk moo fi di défendre Arabie Saoudite wala Yaman wala Jordanie wala Palestine dëgg la ñuy défendre te yàlla tax yow jàngee nga Arabie Saoudite xam nga fa dara Cheikh Ahmed xam nga ni seen tribunaux yi fa nekk ay tribunaux islamique la mm-hmm. juge yi fa nekk di àtte ñooy aimatu masjid yi nekk ci xaram beeg feneen fa ñuy marta dañ leen di takku yu ne ci qada ci alquran ak sunna lañ leen koy jàngal ba mu leer mm-hmm. ci fiqul islam lañ leen koy jàngal seen constitution li ñu ci bind mooy ne alquran ak sunna moo koy àtte te seen mazhab mooy mazhab imam ahmad ibn hanbal loolu ci lañ tabax seen daaw depuis imam muhammad euh, abdul wahab ba jamono jii nag le fait que buur am ay position ci yi ci àdduna bi ak accord yi dox seen diggante yéeféer wala yooyu lu la ci neexul du tax nga ni dafa nekk kéeféer la atte wooñu alquran sunna loolu xeyru saxiix accord de paix wala ay accord stratégique yu dox ci diggante ay loolu niveau état la loolu mbiru politique la loolu doo ci takfir kenn yonent bi alayhi bi mu ñëwee Madina li mu njëkk def mooy signante ak yahudi ay accord ci wane ne bu ñu songee da ngeen jàppale même alal sax da ñu leen songee dañ leen di jàppale te ñooñu ay kuffaar lañ te ànd na ak ñoom signante ndax boobu mi ngi soog a jóge màkk amagul woon force bu ko mën a protéger mu jàppal teg yahuut yi ne bi mu demee ba yëg ne léegi soxlaatul kenn daf ne soxlawul ci di dimbalikoo kenn kon mbir mi ay stratégie la tolluwaay la mais doo ci jug rek tàmbal di takfir di wax ne dañoo dem ànd ak américains yi dañoo dem def li dañ dem def loolu ñenn ñi nga xamante ni ñu leen di xeex ñoom ñoo menacé waate parce que yow boo ne xilaafa islamique nga yor boo xamante ni universel li muy kon mooy da pare pour songu dëkk yëpp daal di koy ubbi mooy ñoom li wax mooy reconnaître uñ benn frontière amul benn frontière bu taxaw seen kanam waaw dëkk yëpp dañuy envahir Arabie Saoudite ak feneen fu mu mën a doon nañ fa bëgg dem taxaw fa àtte yàlla mooy kon régime yi nekk foofu déclaré nga leen kon mbir mi yëpp problème stratégique la du ay problème bu pas ak yu mel noonu wàllu pas-pas ak yooyu loolu borom xam-xam ñoo koy li état yi li ñuy xool mooy stratégique ni ñu def ba sàmm seen nguur hmm. saxaaba yi doon xeex ay jullit lañ woon Muawiya mi doon xeex jullit la Ali mi doon xeex jullit la te dañ doon reyante di tuurante ay deret te kenn du leen takfir ci loolu waaw parce que li leen ute la woon istihaad la woon ijtihaad la woon kon eh, du doo sukkandiku ci ñu ko xam day xeex ak ay jullit rek nga ni waa xeex na ak ay jullit kon moom yéefar la loolu xëy du saxee kon li ma mën a delluwaat wax ko moo ne masala bi bu fekkee bëgg nañ ci jàng am ci lu leer nañ ko def ci ay xalaqaat nañ ko def ci ay xalaqaat ñu dajale li lu bëri loo xam ne borom xam wax nañ ko man bind naa ci bon du wax sax lu bëri parce que loolu day mel ne da ngay wax ne bind naa ci daal lu tane ci loo xamante ni ñaar ba ñetti mu zakkiraat yoo maa ngi koy sama téere sama sama sama sama sama machine benn bi bi ma koy bind maa ngi ko bindoon ci benn dawra boo xam falaax ñoo ma ko santoon alimam Aboubacar Sall sant ma ko ma dem fa def benn muzakkira boo xam ci alasmaawul ahkaam la woon mu nekk conférence euh, loolu war na mat juróomi at wala mu ëpp ko ak léegi kolobaan la woon pour wan ne la doo toog ci jotaay di def munaqasa di wane sa xam-xam ak di wan ci ngay waxal ne ko li ngay wax maa la ko gën a xam wala yooyu mais da wax rek pour nasiha ndax yenn sabab yi léegi-léeg dañu waru ci li ñu xam mooy li ma doon wax naan léeg-léeg xel mu neex day fitnaal ndax léeg-léeg ci yenn yi yàlla leen di may xel mu neex ñu tàmbalee jàng commencé jékku xam-xam bi rek daal léegi a nag franco lay di wax ak di jël ay position ak di dàgg sant te loolu waru gu rëy la ci ci ndaw li jàng loo xam ne seytaane ci lim ko gën a mën a yàqalee bokk na ci léegi loolu lan la lay jural mooy boo toogee nit ku la mën a baaxee bàyyi loola xel ci yenn yi da nga dul pare pour déglu ko déglu jëriñu ci moom buy wax yaa ngi xool li muy wax na àggal ba ma gaaw tontu ko wan ko ne ko maa la gën a jekku li may wax léegi boobaa doo jariñooti ci kenn seytaane tëjal la bunta mën a jariñ ci koo xam ne li ngay wax moo la ko gën a xam dañ doon wax ci waxtaan yi doon waxtaan ak ci yenn shabaab yi kenn ci ñoom indi benn règle boo xam ne Cheikh al Islam daf koy wax euh, mudakira wu al asmaa ko indi fi liir ko ci naa ko fa bokk ci li nga xam waxoon naa ko la wax dafa wax ne li nga xamante ne bi moom mooy euh, tur yi nga xam ne moom la yàlla jox yéefar yi daf ne qad yardu ismul fisq masalan wa yuraadu bihi loolu du bi tayib ñu ngi nii Cheikh Lislam daf ne qad faraqa allahu bayna ma qabla risalati wa ma baadaha fi asmain wa ahkam wala fi asmaa wa ahkamin wa jamaa baynahuma fi asmaa wa ahkam mu ne yàlla subhanahu wa taala dafay def différence entre lu nekk laata mu yebal yonent ak après bu yebalee yonent yàlla daf koy def différence ci tur yi nga xam ne moom lay jox ñooñu mu yebal ci ñoom yonente bi ak atte yi mu leen di atte léeg-léeg bu ci def différence loolu noonu la ko expliqué mais bu leeralee di nga xam lan la bëgg a wax mu ne qaala allahu idhab ila firawna innahu tawa wa qaala wa id naada rabbuka musa an iti alqawma alzalimin wa qaala innahu kaana min almufsidin fa axbara annahu zalimun wa taagin wa mufsidun huwa wa qawmuhu wa hadihi asmaau zammi ala faali fa dalla dalika ala an al afaala takunu qabixatan madmumatan qabla majii rasuli ilayhim qabla majii rasuli ilayhim wala yastaxiquuna al azaba illa baada ityaani rasuli ilayhim li qawlihi wa ma kunna muazibina xata nabaata rasula léegi sabab bi ñu doon waxtaanal kenn ci ñoom ci téere yi ñuy dellu parce que man li may wax chaque fois mooy boo dee wax naan qaala cheikh al islam qaala tabari qaala barbahaari qaala fulaan fulaan leen dellu ci seen i téere jàng ko njàng mu ñor ba xam li ñuy wax xam usulu ahli sunna pour mën a dégg seen i wax mais bul jëm ci benn risaala buy takfir takfir bu jéggi dayoo mu dajal la fa nusuuf yooyu nga yor ko chaque fois ci ngay dellu di ko liir di jox impression ne yow yaa dellu ci téere yooyu loolu chaque fois ci ay njuumte la lay yóbbu léegi dafa wax ne yàlla subhanahu wa taala bi mu yebal Moussa ci ci ci Firawna daf ko wax ne ko demal ci Firawna ndax dafa jéggi dayoo dafa bew ne innahu min az-zalimin dafa bokk ci tooñkat yi wax ne moom ak ay xeetam dañoo réer demal ci ñoom léegi tur boobu leen yàlla jox suru àtte la mooy suru nit ku réer nit ku jéggi dayoo nit ku bew kañ la leen yàlla jox tur boobu mi ngi leen ko jox bi muy yebal Moussa mooy kon Moussa demawul mooy kon dafa mel ne yàlla àtte na leen avant muy yebal ci ñoom Moussa kon layu yàlla tegoogul ci ñoom te yàlla mi leen commencé di àtte mhm. léegi kon loolu ndax doo ci déggee ne kon yàlla xaarul ba teg mayam ci seen kaw soog leen a àtte daf leen a àtte avant mu yónni Moussa hmm. léegi moom maal asaf kenn si ñoom ci doon wax loolu la ci déggee nekkoon kon loolu li teg tekki mooy nit ki même lay yàlla bu tegul ci kawam dañ koy àttee la mu def ma ne ko yaa Cheikh l'Islam bu waxee loolu dafay def différence entre tur bi ak àtte bi dafay wax ne tour bi naam dina tegu ci seen kaw mais àtte wu tur bi kenn du leen ko hmm. àtte mooy àtte wu tur bi pour mu mën a ñëw loolu mooy nga xukmu ala al fa'il nazaran ila al fi'l mooy ar-rabt bayna al ismi bayna na fi'l wal fa'il nazaran ila al fi'l loolu bu boobaa atte bi du mën a ñëw mais tur bi rek moo fay nekk maa nit ki def ñaaw téef nit ci def tooñ tooñ nga ni ci tooñkat la dafa xam xamul juum na juumul tooñkat la ci ne li mu def jëfi tooñ la mu des nag ndax da ngay jëflanteeg moom ni ñu war a jëflanteeg ku tooñ foofu la ñuy xoolee ndax am na ngant wala amul ngant mais en tant que rek tur li mu def ci li mu def boo ci basé pour bëgg koo sa tur nu nga ko tuddee noonu cheikh l'islam daal di wax ne kon tur yii leen yàlla jox ay tur la yoo xam da cay ŋàññi ay jëf mu ne loolu li muy tekki mooy ne kon jëf ya ñu def ñaaw na même sax bu yonent bi ñëwagul ci ñoom di leen waar jëf ya moom jëf yu ñaaw la rek kon yàlla ñaaw ñaaw nu la seen ñaawlu na seen i jëf laa mu yebal ci ñoom yonent waaye nag nee na du ñu yelloo mbugalu yàlla du ñu yegoo yelloo dóoru yàlla te yonent ñëwagul ci ñoom loolu nag la ki ma doon mbokk mi ñu doon waxal loolu la comprendre àggul ci loolu Cheikh Ibn Taymiya xëy na téere ba mu dellu waa ji nanguwul tuxoon àggale waxu Ibn Taymiya ba mu àgg dafa coqati leen coqati leen rek la ci des mu bàyyi ko mooy li mu wax ne wala yastaxiquuna al adaba illa bada ityaani rasuli ilayhim mooy li yàlla wax ne wa ma kunna muazibin xatta nabaata rasulan kon bul xool ne yàlla wax na innahu kaana min alzalimin dana yàlla laata mu yebal Moussa ci firawna nee na min alzalimin kon xokmu na ko te fàtte ne xukmu zalim du nekk ci moom ismu bi moo fi nekk mais xukmu du nekku fi ndax xukmu bi pour mu mën a ñëw foog xujjatullah yi taxaw mooy layu yàlla foog mu taxaw ci ñoom kon loolu ñu liñ ciy liñ ciy déggee rek mooy ne léeg-léeg mën nañoo atte yéefar bi ne yéefar la mooy atte wu àdduna jox ko tur bi waaye nag bu faatoo li nga xam ne mooy mbugal mi loolu bu xujjawu yàlla layu yàlla tegul ci ko kenn du ko teg ci moom naka noonu tamit jullit bi ndax bokk na ci question woon ci jotaay boobu mooy ne ndax loolu ni mu valable ci yéefar noonu la valable ci jullit laa chaque ne bokkul ndax ki nga xamante ni mooy jullit dafa xas ba dugg ci l'islam alors que ki nekk yéefar duggul ci l'islam kon jullit moom mënoo wax ne dama koy génn ci l'islam bi mu jaradi mu def loo xam ne kéefar la naam dama koy considéré ab yéefar léegi nag atte bi laa dul teg ci comme loolu xayru saxiix mooy ne bu fekkee ngant mi ngi fi rek ngant loolu moo lay tere nga mën koo tuddee yéefar considéré ko kon doo ko mën a génne ci l'islam bu fekkee ngant mi fay kon li ñu li ñu bëgg waxaat ci jotaay bi pour jeexe jeexalee ko mooy ñu delluwaat ci xam-xam euh, te tey gën a jàngat def formation yoo xam ne formation yu gën a xóot la te bañ a yàkkam xam-xam te loolu boo koy wax yenn shabaab yi dañu yaakaar da leen di xaw a xeeb wala yooyu te wan leen respect ak wan leen ne du xeebeel ndax nit ki wax boppam la njëkk a xeeb laata muy xeeb kenn moo tax nga nangoo dem toog ak ñoom déglu leen ba nit demoo téléphone naan yéen li ngeen may shabaab yu dafa ëpp ndax ni ngeen toogee ñoom ak respect bi ngeen leen jox waroo leen woon sax def loolu mais loolu yëpp nit ci liñ ci jublu mooy pour wan leen ne suñu mbokk jullit ngeen yoo xam ne ci xam-xam lañ leen xam am ci yéen jubluwaay ak yéene na bu nañ pour toog ngeen déglu leen ngeen wax waaye bu ñu waxee tamit li ñu wax lépp lañ ci jublu mooy defar ak yéwénal loolu lañ ci jublu jubluwuñ ci leneen lu dul loolu léegi ñu tey loo leen def loo leen dànk ci ne xam-xam da ngay àgg niveau boo xam da ngay commencé di waru loolu du ma amaat kersa keroog waxoon naa jotaay dañ teewoon fële ma joxewaat ci exemple sam bopp bi may nekk fii di jàng yàlla defoon ma ko ci wàllu xel ci jamono yooyu maa ngi doon ñaanaat yàlla xel moom dellusiwaat ci man ndax daanaka lu ma musaan xool mokkal ko ci lu gaaw dama tàmbali woon di yëngatu ci xam-xam ba dem ba commencé di am yu ma ci lool yàlla baaxe woon ma ci ma parce que am téere bëri yu ma jàng am yu bëri yu ma mokkal ma tàmbali di wax ne mubtadia yi nekk Sénégal daganu ci mu julli seen ginnaaw ndax li ma gis ci ay texte dafay wane ne mubtadia laa yusalla xalfahu maanaam koo xam ne mubtadia la kenn du julli ci ginnaawam mais man dama généraliser woon parce que bidaa façon bidaa yu bëri la mais man defuma différence entre bidaa bi wala dama ne rek koo xam ne mubtadi la kenn du julli ci ginnaawam léegi ma commencé di jël ay texte général inna allaha xajaba an saaxib al bidaati bida tawbata xata yatruka bidaatahu ak nafs nga xam ne moo nekk ci charx usuli itiqaadi ahli sunna bu alimam lalakai bu euh, sufyaan athawri bi muy wax shuayb ibn harb naan ko amal jumaat wala ayaat fa salli man man tajidu koo fa fekk rek julli ci ginnaawam amma gayru dalika fa laa tusalli illa man tafiqu bihi wa taalamu annahu min ahli sunna budul jumaa ak yeneen ci des boo bul di julli ci koo xamante lul ci koo xamante ni wóolu bu ko te xam nga ne ci ahlu sunna la bokk ma ci daan dàggatante ki ma ci gënoon sonal bokk na ci oustaz Alioune Guèye bi gaañu rahimahullah saa bu ñu woon benn tali ci loolu la ñuy nekk maag moom da ciy wax ba sonn mais du ma mën a convaincre bu mu saana jot damay jàpp ne sama sama sama position dafa dëgër moo tax mënu maa convaincre waaw moom mën na maa jàngal foofu mais li lay wan ci waru ci xam-xam nu mu dangereux mooy toog ci koo xamante ni bii ba mu dale ba muy jàng yow juddooguloo jàngi na am niveau formation bu kawee boo xamante ne xaaj bi xaajaat bi amuloo ko ba ñuy bisi dama daan toogoo moom ci masala boobu mais bu ñu waxee damay yaakaar ni ah macha allah maa ko gën a dëgër maa gën a jekku affaire yi mais seytaane moo lay war moom jàll na moom moom ibnu moom moom ko jàngal ñu ko jàngal moom muy ustaas jaamiatul islam yi ñëw fii ñu daw dawra bi ñuy organiser ñaan organiser grande mosquée ma dem inscrire ci dawra bi man maa lëmbe woon dawra bi masala masala ndax boobu sama bopp fees na dell ak masala te la moo ma juraloon loolu li ma juraloon loolu mooy jamono yi may jàng aw ma woon borom bu may teete maa daan demal sama bopp ci kutu bi léegi lan la ma jural li ma jural mooy ay subuhaat daf feesoon sama bopp dama bëriwoon ay subuhaat loolu mooy danger wu di jàng beru nekkuloo borom xam-xam bu lay orienté yenn dégg-dégg yu yu jubul yi boo ko amee ci yenn teg yi ak yenn masaayil yi mu teel a jubbanti balaa muy dëgër ci yow ndax bu dëgëree rek lii dëgg la mooy li euh, limaamu Zahabi di di wax ci euh, nit ki di jàng di jàngal boppam ci téere te du dellu borom ma xam ne pour ñu former ko ci yenn yi xam ne mooy base yi nga xam ne la xam-xamam war a tegu ñëwee ay cheikh ruxay léeg yooyu ñëw ñooñu ñoom usulu din lañ jàng mm-hmm. ma nekk ci di ci dàggasanteeg ñoom ba subhanallah trace bi da doon riche léeg-léeg bu ñu génnee ñu dem taxawaat ci bitimaat maag ñoom ñu nekk ruxeel dafa mujjoon daf daan taxaw di ma xool wallahi bi tellement masaayil yooyu nu ma ko jàppee woon yàlla def bi ma mujjee am xabul nag dem jàngi dem dem dem dem dem ba masaayil yooyu ma fàtte ko ba nga xamante ni xëy na ci dem na ba yem jàppoon ay yaqin yoo xam ne yaakaar ni yaqin la woon mujj xam ne moom lam daan wax teguwul ci ay base yu leer benn jour ñu julli ci ci ci jàkkawu université bi rek université islamique génn ma dajeek moom nuyu ko ñu waxtaan mu ne macha allah mu ne ma yow yaa daan faral di munaqasa ci eh, dara xalfal mubtadi ma ne ko naam mu ne ma masala boobu foo ci toll léegi mu ne ko waxatuma ay waxam <laughs> léegi fàtte naa ko jàll naa ci boobu mu ne ma macha loolu mooy wane ne nit bul yàkkamti ci xam-xam na nga teey maanaam léeg-léeg lu bëri li nga jër ak xel mu neex mi la yàllay may taxagul nga ñor ñorogoo ci xam-xam ñoroguloo ci xam-xam ci xam-xam man dama naan veillé di jàng ba bët set dama daan téye ba dama ko daan ko daan mokkal ay téeréem ci sawar ci njàng mi ak yooyu yëpp loolu yëpp lu baax la mais boo amul orientation bi ak ñu togg la ba nga ñor ci xam-xam wallahi ci ay erreur ngay dem ci ay njub te loolu bëri na ci jeunes mais bu la yàlla baaxee nga jaar ci ay loxo yi borom xam-xam ñu teete la def ci yow ak oyof wàcce la damm la surtout wàcce gi ak damm gi dafa baax su kuy jàng xam-xam te bokk na ci risque yi gën a euh, yi di gën a jànkoonteel bu fekkee jaarul ci loxo nit mu yar ko ci wàcce boppam ndax toog baaxam di wax nga koy déglu dafay def ci yow ak wàcce boo xam ne day mujj dangay ngay oyof oyof boobu ci xam-xam dafa baax ci nit te lool boo jàngul ci nit doo ko am maanaam boo jaarul ci nit mu lay jàngal ngay toog di ko déglu muy wax dara xëy na sa xam nga ko mais nga toog noppi li nga xam nga téye ko di ko déglu moom loolu dafa am lu benn jikko bu muy def ci yow boo xam ne daf lay wàcce ci xam-xam ba ko noppi dina def ci yow yaatu dënn bu tax nga xam ne loo gën a jàng di gën a xam ngay gën a xam ne ndakate yenn uute yi ni ma ci daan taree yaakaar ne warul am ndax ku jàpp lii da ngaa réer réer boo xam ne waru ma la supporté di nga dem ba xam ne mbir mi nekkewul noonu wuute mën na am nga yaatu dënn ci masaayil yi ndax xam ngooy xam ne lu ñu war a mën a wuute la ak wuute bi nekkoon bay na salaf sin dina tax nga gën a comprendre loolu loolu kon baax na ci nit ki di jàng ci ci ay euh, loxo nit jaar ci ñoom ñu formé ko def ci moom wàcc googu ak euh, suufe googu ak yar ko ci wàllu jikkoom mais li ci gën a dangereux mooy yenn jeunes yi nekk ci yenn quartier yi tane fa ñu teel laa samp genre borom xam ñu bëri ci man sama nekk daan fees ak ay ndaw ñoo xam ne comme man lañ toll ci même génération bi lañ benn tali suñu kër daan fees ba mu saan ñëw daa daal yi ci bunt bi da nga yaakaar conférence moo fi am ndax secteur boobu yépp jeunes yi ku ci bëgg xam-xam wala nga bëgg a jàng dañ dema ci morke bi bu ñëwee yoon naa fa sama benn tableau ak sama quelques téere quelques téere yoo xamante ni cheikh daan sëgg bu ñëwee ma ne fa subhanallah commencé woon sax dem bay jàngale sama biir nekk su fatu salaatu nabi bu albani te léeg-léeg ndaw ñi ñoo lay dugal ñu naan la mais est-ce que duñ am dars ci seen téere ngay ci ñu pousse la rek ba nga dugg ci nga commencé di ko jàngale commencé di jàngale dugg ci ay matériels yoo xam ne maîtrisé wuloo ko bu la yàlla baaxewul téye la delloo la ginnaaw di nga mujj soo moytul dem ba dootoo nangoo dem jàngee ci borom moo xam ne da ngay commencé di comparer sa bopp ak ñoom ak di bëgg di convaincre jeunes yi la yi la fal ba samp la def la ñoom seen borom nga bëgg leen wan ne gars yi la ëpp ëpp ñu ma xam-xam te ni ñu leen ko mën a wane mooy léeg-léeg bu ñu waxee dara nga raddu ko wala ngay jéem a fexe créer sa diggante ak ñoom ay munafasat yoo xam da nga ci bëgg a samp sa personnalité pour wane ne yaa leen gën a maîtriser affaire yi ëppalewuñ la dara fekk ne subhanallah eh, gis nga Cheikh Ibnul Uthaymin dañ nga laaj question mu laajaat ko mbooloo mi xam nga lu muy wax mu ndax léeg-léeg mbooloo mi sabab yi fii toog nga leen di wax ñuy déglu léeg la nga dem si masala boo xam ne am na si ñoom koo xam ne gëstu na ko ba xam ci lu leer nañ mu ñu ngi toog di la déglu léeg-léeg yow boo jekkoon masala boo ko laajtee mu mu tari lam ci wax mais est boobu mu ci tari lam ci wax loo xam ne cheikh bi teew teewluwu ko wala jekkowu ko ci jamono day tekki ne léegi moo gën a xam cheikh bi tekkiwu ko léegi nag moo tax yooyu na ci nit ki tey bañ cee waru yàlla nañu yàlla subhanahu wa taala sàmm kon ala kulli xaal jubluwaay bi li mu gënoon nekk moo joxe rek ay nasaih mais masaa lu mel nii kenn mënul ci jotaay yu mel nii ci waxtaan nii rek ñu fixeel la ay une heure de temps minutes nga toog taxqiq ko li ci ñëw ci usulu ahlu sunna munaqasha texte ak yu mel noonu loolu ku koy séntu na xam ne kenn du ko def ci jotaay yu mel nii ay la yoo xam ne dañ koy dem jàng ko jàng dawaabitu ahlu sunnati fi takfir muy baabu takfir jàng li ñu tuddee fiqul jihad jàng ko xam lan moo ci manhaj ahlu sunnati wal jamaa bu fekkee lu mel noonu la mën nañ cee créer mu defar ay mudakkirat def ci ay durus mu nekk silsila min ad durus ñu jàng ko lire ay texte expliquer texte yi wa illaa bu dee waxtaan yu mel ni moom li li muy gën a li ci gën a mën a nekk munasib rek mooy pour sensibiliser waat jeunes yi sensibiliser waat mbokk yi pour ñu gën a bàyyi xel ci eh, xataru muy dangerosité wu takfir ba buntu takfir waaw ñaari mbir yi ñu séq la benn bi mooy ñu nga xamante ne ñooy défendre xokkaam yi di wax ne eh, li fi nekk ci laïcité nañ ko accepté jàppee ko comme li nga xam ne mooy li yàlla wàcce ci yonente bi alayhi salatu salaam dem jaayanteeg ñi nga xam ne ñoo koy atte buñ jaayanteeg ñoom li muy tekk mooy accepté nañ système bi jàppee nañ leen xamante ne ñooy atte alxuraan ak li ñuy wax mooy nangoo gu mënta ñàkk goo xamante ni li muy tekk mooy ñoom la ñu yàlla nattoo ñu ñu àtte yore nguur gi nangu gu mënta ñàkk la nañ ko accepté mais nekkul ne nangu goo xamante ne reconnaissance la àndal reconnaissance amul ci ndax boo amee mooy accepté nga régime bi moo fi nekk te loolu taaxut la tey l'islam daf la ko weddiloo ñeneen ñi ci des mooy jàpp ne comme dañ ne régime bi kufru la rek li ñuy tekki mooy jël sa ngànnaay nga jaamaarloog ñi nga xam ne ñoo ko yor atte ci ñoom kéefër daal di commencé di def li ñu tuddee jihaad ñaari euh, kuréel yooyu yëpp dama jàpp ne excès dafa nekk ci ñoom nañu jël al manhajul wasat ñu xam ban tànk lañu war a taxaw suñu diggante ak ñi nga xam ne ñoo yor ay wàllu nguur ñu xam ne buntu boobu buntu bu dangereux la boo xam ne bi buñ fa commencé am yenn taxawaay yi suñu daaw lépp la ñuy yàq te nañ mooy tundiku yenn infiltration yi yenn nit yi nga xam na ngay jékki-jékki rek ñu ne la benn mbokk jóge na tel dëkk ñëw na Sénégal commencé di làqatoog ay jeunes di leen di leen commencé endoctriner ci genre masail yu mel nii biñ fi commencé di dal ci suñu kaw nitu xam-xam yi fi nekk doaat yi di leen sonal ci ne dañoo war a dem jaayante gi ay français nga daan dégg jékki rek ñu ñëw dëkk ci benn koñ luyee fa commencé jeunes yi di leen fréquenté ñuy dugg ak ñoom ci masail yooyu yenn jeunes yi fi jóge dem Mauritanie daje ak algériens ñu endoctriner leen ñëw commencé di ko wote tàmbali di dal ci kaw nitu xam-xam yi fi nekk nitu xam-xam yi fi nekk di yëngatu ci xam-xam di daaw ci alxuraan ak sunna seen dund lépp ci loolu lañ ko jeexal même lu mu bon bon bon même bu ñu leen newul ñëpp xam-xam ci àdduna tamit am na lu ñu xam ndax borom xam yu bëri ñuy naw tey di leen déglu fa ñu leen di formé fa lañ leen formé ñoom te bañ fa dajee di jàngandoo yóbbuluñ leen dara Abdul Majid mi xam na ci dara du ma fi nekk di tàgg suñu bopp mais wallahi bu dee wàllu intelligence ak dégg alxuraan ak sunna ak njàng rek daje nañoo ñoo xam ne tey da nga daan jàng ak ñoom amul lenn loo xam ne rek sax mën nga toog di au contraire kenn da daan sax du ma wax kenn la da nga da daan sax toog classe intervenir génn say collègue de classe ñëw di la interpeller ci matériel yooyu pour nga leeral leen ko ak di yéemu ci yow say intervention bay ñëw sax di la solliciter pourquoi ngay gëj a ndax yenn yoo daan wax di ko leeral biir classe ñooñu ngay génn ñibbi si fii ay nit di la këll-këllee ñoom ñu génn nekk seen dëkk nga dégg ñooñu ñu leen di ngandal di leen jàppee ay masayax quoi yow ñu lay ñàkkal léegi loolu fan la tegu ci yan base la tegu loolu taxassuf rek moo koy jur moo tax du ma fi nekk di wax naan ay ñi fi jàng dem am yenn formation yi ñëw lii lañ xam ak nii lañ mel ak nangam lañ am mais nañu xam am na lu ñu xam ak ak néew même bu fekkee boo leen fekkoon ñu nekk salle de di jàngale niveau xam lu ñu xam ak ñu xamul mais nag yow ay nit di leen démontrer li nga xam ak li nga xamul da wax rek te yàlla tax ci niveau bi nga war a wax pour jëriñ nit ñi parce que yow booy wax doo wax ci sa niveau da ngay wax ci niveau lu jëriñ nit ñi kallimu naasa bimaa yaarifuun aturiduuna an yukadaba allahu wa rasuluhu kon mooy boo wax ne ngay wax ñoom li nga xam ne moo nekk munaasib ci jotaay ba ak kon nit ñi di leen jéem a décrédibiliser bi yàq seen der def seen kéemtalaay kàttan pour yàq seen gis nga naa fi benn mbir boo xam ne bëgguma ko woon wax xam nga moo faq alxar bi waaw bi nga xamante ne mooy naar bi fi toogal ambassade u Arabie Saoudite pour lépp lu aju ci wàllu diine hmm. dafa am benn jour ma ñëw parce que ñu liggéey ñun ñi ñooy liggéey ak moom hmm. mu woo ma interpellé ma ci ne nit dafa ñëw ci moom di ko wax ci ci Cheikh Cheikh Mouhamad Ahmad Lo te xam naa kooku kan la xam naa turam xam naa ci ban mbooloo la bokk dox sox dàllam dem ba ci pour yàq deru borom xam maanaam loolu moo lay wan ne la kon mbir mi nekkatul mbiru uute ci ay masaayil rek mais seen objectif mooy pour détruire ñoom yàq seen daawa hmm. fépp fu ñu lu ñu leen xam hmm. naw leen fa leen fa jox leen fa cër ñu mën fa jëlee njariñ bu dellu ci daawa bi hmm. jéem nañ fa dem ñu woote fa téléphone wala ñu bind fa pour jéem a yàq deru borom xam yi fi jàngale fan ak sunna léegi loolu est que mën nga wax ne uute la rek bu dox ci diggante nit ak nit ci ay masaayil yu ñu yemale ko ci ci cadre boobu wala ndax nit ki dafa nekk mission ci moom mu pare pour détruire daawawu cheikh diw ak cheikh diw ak cheikh diw man li ma jàpp mooy yi ngay dégg di ko gis genre mission la boo xam nit ki moo xam dafa am leneen lu nekk ci ginnaaw wala daa yaakaar li ñuy def jihaad bu baax la euh, ci kaw ñàkk xam mais loolu la gën a nurul mission boo xam ne pour yàq ak moo ko tax a jóg kuréel googu nga dégg leen nga ñàkk leen dégg ñu ngi ci suuf di def ci loolu lu ñu mën seen kéemtalaay kàttan mhm. seen yitte mooy fexe ba ñu fi nekk kat ñëw kuy dem bay bind ci internet di wax ne tullaab yi génnee Arabie Saoudite jaamiatul mhm. islamiyya bi nga xam ne mhm. mooy université salafiyya bi gën a mag ci àdduna ndax xatta Arabie Saoudite université islamique bu fa gën a dëgër ci jàngaleem l'islam jaamiatul islamiyya amul rawatina ci jamono yi nga xamante ni waaw laata yoon fitna yi di am niveau de formation bi fam fenn ci Arabie Saoudite amul fa ci xam-xamul islam nga ne di daaw ñoom ñoo jàllankoor daawatu sunna ci kuy bind loolu ci ci ci internet di ko wax di boolee boole bay kalaame di wax loolu kooku ban daawatu salafiya lay wax. ban ban lay waxati. te moom ci boppam amul benn formation pour mën a nekk daay wala muy jàngale ci l'islam mais moom mooy joxe jugement yu mel noonu ci internet léegi genre nit yu mel noonu naka la yenn jeune di mën a demee di topp seen ginnaaw bañ lay tàqaleeg nit ñu jàng xam-xam man loolu moo ma jaaxal naka la ban propagande la la nit mën a def koo xam ne xamuloo ko benn cër bu mu am ci l'islam moom lu muy wax li ñuy wax mooy yéen kan moo leen tarbiya <laughs> ñun markaz bi ñu ci génnee ñu formé ko ba jox ko diplôme defal ko xasnu siira wa suluk ñoo ko tarbiya mm-hmm. mooy bépp ustaas bu ko jàngal rek tarbiya na ko yow ku la tarbiya yow mm-hmm. majhul laa yaarifuka ak kenn xamul la mm-hmm. da nga jékki-jékki rek fëll ay philosophie nga doon jàng wala nga nekkoon université fay di jàng ngeen xamul lan nga jàng ñëw un jour autoproclamé wu yor sa kaala gu rëy nekk borom xam-xam commencé di yow yaay atte borom xam-xam yi quoi nitu xam-xam yi mais léegi ci nekk corporation boo ko defoon nit ñi jug dal ci sa kaw bu fi nit jugoon dem fekk borom xam-xam yi jàngalee jàng médecine nekk fan nekk ay professeur di jàng di jàngale université di di opérer ay nit yu marat fan mu dem fa di commencé di dugg ci seen corporation di wax ci wàllu naan li ngeen defee perfusion bi baaxul ak ni ngay euh, defalee ci masque bi baaxul léegi nit ñi ñëpp jug ne ci dafa dof mais bu dee ci l'islam la da koy def nit ñi di la déglu ba dem di la topp mais léegi ci ban àdduna lañ nekk léegi ci ban àdduna lañ nekk da ngay jékki-jékkiwaat léegi gis encore affaire takfir bi même chose noonu la demee ay nit auto proclamé wu ñooy jug ñëw euh, commencé ñu ci bëri Mauritanie la ñuy jaar dem fa ñëw indi seen na boobu te Algérie ba mu tojee ci la déstabiliser région àdduna bi yëpp benn bi ci ñooñu di woote ci ci wàllu taasub boobu noonu ak ñiy jóge waat léegi ci takfir bi foofu lañ jóge Algérie ñu dàq takfir ci àdduna bi Algérie lañ nekk Mhm. ñu dàq takfir si adduna bi Algérie lañ nekk fitna boobu fa la jóge léegi da ngay jékki-jékki benn français ñëw na dëkk na dëkk eh, dëkk na benn yor na benn appartement am jeunes yi commencé di ko ko gis mu dem benn borom xam ci ñi yëngatu fii ci daaw bi xamuloo ko doo ko gis këram muy wax moom lu bon lay wax bu fekkonte ni nit ku wóor la ku ay mbiram moo tax du dem ci ñooñu xamante ñoom nga koy gis muy ñoom mais doo ko mu dem foofu fi lay toog di capté ay jeunes commencé di yu mel noonu mhm. mais bu leen déglu benn individu boo xam ne xamuloo ko ak adduna bi ni mu wóoradee léegi ak infiltration bi am ak noonu yàlla ni mu paree pour yàq daawatu ahlu sunna ngay def ku jóg nga jox ko sa nopp mm-hmm. inna hada din inna hada al amra din fanduru am man taaxuduuna dinakum nañu moytandiku infiltration bi nañ ko moytandiku li ñu xam mooy ahlu sunna gars yi dañu pare pour yàq daawatu alquran ak sunna parce que leen tiital boko haram <laughs> boko haram ñi ngi fii Nigéria commencé nañ di def ay attentat ci biir masjidu ahlu sunna yi di rey xam ahlu sunna yoo xam ni daawatu ahlu sunna tey fu nu mu amee doole ci Afrique Nigéria moo fi ëpp doole dem ba ñu am seen i seen i seen i tribunaux di atte ci l'islam bu ñu leen bàyyee seen daawa continuer nañ dem ba léegi ñu jekki-jekki créé Boko Haram ñu génn waa jooju xaw ma Abubakar Chico la xaw ma bu jugee taxaw yore ngan di social taxaw di wax da nga yaakaar ci day saboté quoi ah, di wax ci façon boo xam ne nee na ci turu l'islam lay wax quoi yore benn kayam yore ngan di social taxaw di wax naan yaa kaafir anta kaafir billah ban borom xam-xam nga gis ci borom xam o ahlu sunna Nigéria moo moo moo mu Boko Haram di ah, def ay mbokk fii di wax na Boko Haram dañu jihaad yaaqi Nigéria léegi borom xam ahlu sunna yi fa nekk nga leen ci jihaad boobu ah, ànd nañ ci ah, léegi mooy kan léegi yow moom ngay dëggal nga weddi borom xam ahlu sunna wal jamaa yi nekk Nigéria nga dëggal waa jooju benn jaahil boo xam ne xamul dara ci lislaam aaya bu leer sax mënu koo jàng jóg yore ay ngànnaayam di def anarchie ay dëkk lay dem jàpp ay nit di yóbbu ci àll bi mais ay jigéen l'islam dafa la wax na la booy jihaad nga jël ay jigéen di leen yóbbu ci àll bi loolu l'islam santaane na ko enlever ay jigéen mu naan ah, di reetaan parce que day xaqataay reetaan nit ñi dama leen di jaay ba mu yàgg mu ne ñii bu yóbboo ngeen génne seen xel tuub nañ nekk nañ ay jullit noonu la l'islam wooteloo ci ci ci ci jihaad subhanallah subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk maa ngi jégalu maa ngi jégalu yaa laytahu nañ bàyyi yaa yaa laytahu waasara wallahi xam ngeen ni xëy na waxtu bi moo moo xat comme ni ko mbokk mi waxee mbir mu mel nii du benn xalqa du ñaari xalqa du ñetti xalqa luñ si jubloon dëgg dëgg dëgg dëgg mbokk yi junj ko ñoom Mouhamed Niang Aboubacar Sarr mbokk yi organisé mbir mi mooy ah danger am na kenn ku nekk nag na nga xool nga xam ni responsable nga nga xool ci koy jëlee sa diine xoolal ci koy jëlee sa diine lu am solo la euh, lu muy wax nag comme chia duñ jël stratégie chia rek chia yi boobu ñu bëggee mabal l'islam du ñoo xool magul islam mabal leen ku mag mabal magul islam lislaam ngay mabal moo tax ñu jaari sa saxaaba yi di mabal saxaaba yi ku mabal saxaaba rasulullah sallallahu alayhi wasallam lislaam nga koy màggal ñoom it seen stratégie bu ñu ñëwee Sénégal bëgg a mabal ahlu sunna wal jamaa di ñu ko remusi ñu fay te kaw tey docteur Mouhamed Ahmed Lo jàpp naa ni yàlla ko fi yàlla bàyyi ay at yu bare bare bare bare nu mu taxawee actuellement sunna bi ak di leeral loolu day déranger moo tax gis nga moom li ñuy jéem a màbbal attaque yi direct boobu sama genre gi ñoom Mor ci ñun moom waxaale wu ñun moom caxtu amuñu amuñu sax benn xiima ci ñoom bu ñu mabbalee docteur yaa ngi ku mën taxaw di wax docteur bi wax mel na wax yi mooy wàcc ci yow kooku wax dëgg yàlla rek war na la jox war na la jox benn image yi kii dama war def x ci moom tey fu ñuy jàngee lay sunna yàpp naa ni arab du wax yi tey bilaadul xaramayn lu ñu taxawee aqidatu salaf jàpp naa néew lu ñu ko taxawee noonu ci addina bi ma def benn seer mu ndaw téye ko jotaay bi xëy na après ñoom euh, euh, Mouhamed Niang daañu wax mooy euh, Ramadan bi paas dañu nekk mag docteur docteur Ahmed Mouhamed ñëw nekk sama néeg ñu nekk fa ba timis ñu war dem place bu ñu waroon dogee benn forom la ay borom xam-xam ñoo fay daje Afrique wallahi gis nga boobu ñu egsi ci forom ñu egsi rek ñëpp jóg soo jee ñu fa nekkoon ci ay borom xam-xam ñëpp jóg africain yi nga xam ne xamuñu docteur Lo diñ ma woon Ahmed kii mooy kan man kii mooy docteur Mouhamed Ahmed Lo mu subhanallah xoola gars yi ñoom xam li ñuy wax yenn saa yi naar dañu am rëy munu xoola ñii nuñu amee rëy mais xoola docteur bu mu ñëw ñoom ñëpp jóg ku nekk bëgg foon docteur Mouhamed Ahmed Lo man su fekkee man dama fonkoon docteur Mouhamed Ahmed loo dama koy gën a fonk te da nga xam ni kii du du benn waay rek comme Ahmed Cissé jàng ñaari at ñetti at rek taxaw di mel ne wax yi moo wàcc ci yow kon jàpp naa ni ñooñ bët yooyu ñu leen war a xoolee léegi nag man xëy na waxtu bi moo xat mais kii dafa demoon toog ak ñoom moom ak ñoom si di Yaxya ak yeneen mbokk toog ak ñoom expérience boobu ñu def ba toog ak ñoom est ce que day ubbeeku pour parce que am na ñoo xam ne man mbokk su ma daje woon ak ñoom su toog ak ñoom est ce que boobu ñu jëloon ñoom est ce dana mën valable ci kenn ku nekk si ñun tey mën daje ak ñoom toog est bëggoon naa mbokk ñu wax ci tuuti parce que dama dégg après daje bi benn waaye ci ñoom ni ñooñu de yàlla rek moo leen mën baaxal ma ne ah ma tiit mu ne yàlla dong moo leen mën delloo bu fekkee yàlla dong moo leen mën delloo mooy dafa mel ni ñu nekk ci saaxa bi di góorgóorlu ci wàllu daawa dafa mel ni ñoom am lu ñu échec man ma xaw tiit daal ci wax ji daal est-ce que expérience boobu ngeen dundoon lan moo fa xewoon ba ñun ñu mën noo tiital ñu ñooñu yàlla moo leen mën xaw ma nag sama question fu ci toog waaw léegi man buñ ci liggéey nañ jëkkati xëy na ñu jéggalu Cheikh Ahmad li li may wax ci rek lu gàtt la mooy toog ñoom bariwul njëriñ ndax duñ la déglu duñ la déglu déglu jariñ jëriñu li nga leen di wax duñu la déglu li ñuy def mooy defulawul sa kaw pour wan na li ñuy wax ñoom amoon nañ ko ay tegtal ñu paree jël affaire yi yi ñu enregistré di wër ci dëkk bi di ko teg di wane ne dañoo toog ak yow ëpp la ëpp la ay argument loolu la ñuy def kon toog ak ñoom bëriwul njariñ bu dee Cheikh Mouhamad li nga wax ci moom man di ma ñëw université ñu jël mag waa ji di ma laaj ban faculté nga bëgg rek man a ko hadis ñu waxtaan ci noonu mu commencé di xool sama sama sama dossier daf na ma kan moo la defal euh, tazkiya ci borom boromam bi ma toogaloon nga xam ne moo lay defal entretien mu ne ma kan moo defal lettre de recommandation ma ne ko Mouhamad Ahmad Lo mu ne ma da ko xam ma ne ko ci xalqaam laa doon jàngee dafa leen dossier bi tëj ko ne ma jógal nga dem te boobu maa ngi soog a ñëw université quoi ma ne waa kii lii nag la mu def ni lan la après nag ci laay soog a xam ñoom gëdd bi ñu ko jox mais foofu ci ci borom xam yooyu lañ lay joxee gëdd nga ñëw fii fekk benn benn waaye bu mel ne man mu lay këllëkëllee quoi fii mooy Sénégal bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa baad kon dañuy euh, ubbi buntu laaj bu euh, mat juróom nit ñu tënk rek incha allah taala ndax mbokk mi mën a dem ndax xam ngeen tey dimanche la si tuba suba altine la yitte day bari lool kon euh, mbokk mi waroon na laaj ndax moo njëkk yëkki si après ñoom Ahmed am na question bu ñu bëgg a posé naam question bi laaj ma ko tontu na ko mooy mbokk yi seen toogaay na oustaz jazakallah xeyran barakallah yàlla yàlla barkeel ko bon li may njëkk a laaj mooy comme julli moo gën rëy ci islam julli moo gën rëy mooy farata bi yàlla mooy farata bi gën rëy ci islam yaakaar julli bu ko bàyyee tey dañ ne balaa ñu koy rey ci islam da koy defar iqaam ci xujja mais leneen saxatuñu wax pour ñi nga de ne maanaam dañuy tax ci ay nit doon ñaareel bi mooy est-ce que ñoom tey comme ñoom ñu ngi tudd suñu borom xam-xam ñun amuñu xam wala ay bopp Ahmad Lo ay keneen ak keneen amuñu lu ñoom ñoom ñu ngi déclaré suñu borom tudd suñu tudd làquñu ko ci maanaam nangam nangam di ñu ay di ñu ay duwaat teguñu si yoonu occurrence est-ce que ñoom tamit ñu leeral seen tur leer ñoom leeral ñi xam ñoo leen jëmmal parce que ay dëgg sërëf lañ maa ngi doon tànk damay bëgg solo nañu quoi maanaam tey li ñu la mooy taw xii li ñu la aussi yàlla ol yonte bi mais fakk maanaam am na lu ko am na leneen loo xam ne maanaam mu ngi si suuf loo xam ne boo teg ko di si biir ñu jëm comme sama xalaat yi nga xam ne maanaam amaguñu amuñu amuñu benn maanaam benn maanaam benn maanaam benn kii benn cëslaay bu dëgg dafa bari yaa ngi dégg ñu mel ne man dafa bari ko te dañu bëgg yàlla ko amuñu benn maanaam lu dëgër lu leen di téye islam loo tey mën nañ dellu si téere yi wala maanaam ñu dellu Cheikh Albani wala Bun Baaz wala ku mel ne docteur Omar Lo comme yéen fa ngeen toll ñu tolluñu ko te ñoom fa ñuy mooy dañuy oote alxuraan óolu sunna yaa ngi dégg fekk seen tubay bàyyi seen sikka mu gudd gën la ñu kar isaaru sujud gën la ko ab ëppale boo leen xool dellu leer leen ko tudd seen tur comme ñoom ñu tudd seen tur borom borom xam-xam loolu laa doon laaj quoi. leer ñu ngi gën a jàppale. comme ça wax dëgg day xëy na incha allah. alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka anta alalimu alhakim allahuma allimna ma yanfauna wanfana bima allamtana wa zidna ilman nafia li nga li nga li nga mujjee loolu laay njëkkee mooy li nga wax ne amuñ cëslaay ci lislaam am nañ cëslaay xam-xam cëslaay la waaye cëslaay bi gën a rëy ci lislaam mooy njubu yàlla yàlla nañ ko yàlla defal ku yàlla namm ci moom njub kenn mënu koo réeral nañ ñaan yàlla yàlla nammal ci ñoom ci ñun njub loolu cislaay boobu mooy cislaay bu ndekk yeneen ci def yëpp ay sabab la rek yu ñuy sabab loo mën na fay nekk te njub du fi nekk leneen li ci des mooy wax tamit ne ñoom dañuy tudd ay niti xam-xam di wax ci ñoom lu ñaaw duñ du ñëpp ci ñoom ndax wa ida qultum faadilu la yàlla wax wala yajrimannakum shanaan qawmin ala an la taadilu idilu huwa aqrabu littaqwa ak loo wute wute ak ñoom nit ku nekk da nga koy wax la nekk ca moom Euh, loolu la euh, ahlu sunnati wal jamaati def loolu ci bokk na ci leen utale ak yeneen kuréel ci def ndax yeneen kuréel yi bu ñu wutee ak yow tàmbali di wax ci yow lu ñaaw di la waxal ba waxal lu nekkul ci yow ci ñaawteef parce que nit bu fekkee amul kàttan ci argument yi nga xam ne moom lay défendre dëggam ci li ñuy mujjee mooy ay xuloo xuloo nag mooy xaste wax boo xam ne ci lu nekkul ci mu ahlu sunna ñàkkuñu ay argument bay xaste duñu xaste kenn ku nekk dañ lay waxal li nekk ci yow yam ci loolu ñoom ñëpp duñu wax dëgg yàlla wax di wax yu ñaaw ci eh, ñi fi nekk di yëngatu ci eh, xam-xam loolu ñu koy def mooy beneen kuréel bi ci des mooy kuréel bi woote ci jaayanteeg président yi du ma wax sax buur yi président yi laay wax le mot président laay utiliser pour ku nekk xam lan lañ jublu ci président président bu ñu ko waxee rek mooy l'islam nekkatu fa euh, président yi nga xam ne ay république lañ jiite islam xamul luy république république démocratie la laïcité la waaye léegi ñiy woote ci loolu ci jaayante boobu ñooñu ñooy ñaaññi nitu xam-xam yi ci benn anam bu jéggi dayoo bi mais ñi ñi nga xam ne ci takfir lañ jëm te jëm ci jëmin bu raglu ñooñu waneeguñu lu mel noonu nee naa kenn ci ñoom woona ma ma wax ak moom ba wax ji àgg ci mu ne wootekat yi nekk Sénégal woote wuñ ni ko yonent bi alayhi salaam diglee ma ne ko ah loolu day li ngay wax ni lu ma lu ma tiital la ndax ku mel ne yow mënta àtte àtte bu mel noonu ndax jànguloo xamuloo kooku nga xam ne moom moo woon moom laa wax ne loolu wax na ko leneen li ci des mooy nekk di leen cité ak di wax xëy na loolu nekkul jubluwaay bi yonente bi alayhi salatu wasalam waaye nit musaana jum daawul taxaw di dénoncé ci ay tur daf daan wax rek ma baalu qawmin yafaaluuna wa yafaaluuna wa yafaaluuna lan moo tax ay nit di def nangam ak sàngam ak sàngam mais daawul taxaw ci mbooloo mi di faral di cité ay tur di dénoncé moo tax man chaque fois mooy tundiku ñenn ñi xam nga ahlu sunna laa yuqaabiluuna xuluwan bi xuluw ahlu sunna doo def lu ëpp dayoo lu jéggi dayoo ci lislaam ëppal ci lislaam ñu bëgg laa tontu bëgg a jaamaarloog yow ba tax ñoom tamit ñu ëppal ñoom dañuy limité wu rek équilibré def li ñu war a def mooy li Ali defoon digganteem ak xawaari ji mm-hmm. yéefaral bu ko daan yéefaral ak jéggi dayoo bu ñu jéggi woon dayoo ci moom taxul woon moom tamit mu am position bu mel noonu ci ñoom dafa continué woon ànd ak dalam yem fa mu war a yem mm-hmm. loolu mooy ahlu sunna seen wasatiya noonu lañ noonu la ñuy demee kon ñoom loolu ñuy def ci takfiir ak wala ñay wax ci beneen côté ba di ŋàññe ka saaga ka wax lu ñaaw wallahi seen wax yooyu sax pour na feexa nit ñi ak bàyyi loolu mooy puus ngay wax ci ñoom wa illa di nga jàngale alxuraan ak sunna ba jóge fi doo leen tudd ulama bi ñu commencé di kuréel yi moo xam xawaarij la wala jahmiya la wala mu'tazila la ñu bëri si ñoom ñàkk pexe moo leen ci puus wa li ñu gënoon yittewoo mooy li ñu tuddee ak yar nit ñi ci alxuraan sunna jàngal leen ko man sama xalqa bi ma yor di jàngale si loolu laay moom laay jàngale rabbi leen ak tontu leen kenn musul dégg ne am naa ci xalqa xalqa bi ma am ay téere lay tànn yoo xam ne gis naa ne amal na njëriñ julit ñi ma jàngal leen ko ndax xam naa ne soxla nañ jàng seen diine xam ko moo xam ci pas-pas la wala ci fiq la wala ci la tey ay yarkat ak ay jàngalekat ñoom nag duñ duñu duñu def loolu loolu nekkul seen yitte seen yitte mooy di xool ñi def loolu ñuy jéem a xool seen i ayib ak seen i njuumte mais yaakaar naa ni eh, ki jot téere jàngale ko def ci juróomi njuumte ngay wëlbatiku di ko dénoncé ci juróomi njuumteem yooyu buñ la joxoon téere bi ne la jàngale ko nga def juróomi junni njuumte moom juróomi njuumte la def yow di nga def juróomi junni njuumte kon nit kenn muccul ci njuumte te borom xam-xam dañuy wax ne foog mu mucc ci njuumte soog a nekk borom xam-xam kon loolu laay loolu laay wax ci leneen li ci des li nga wax ci sa tàmbali wax ne julli mooy euh, kii bi gën a rëy ci lislaam jëf yi ñuy jëf julli ci gën a i'lamu anna xayra amalikum wala afdala amalikum salaa li mu waxoon ne istaqimu walan tuxsu wa'lamu anna xayra amalikum salaa loolu la yonent bi alayhi salaam waxoon kon julli moo gën a mag ci ginnaaw shahaadatee ni jëf yi ñuy jëf julli moo ci gën a rëy julli bu ko nit ki bàyyee fi'lan borom xam ne dañoo wute ci benn mbir wute wuñ ci lenn wute ci lenn li ñu wutewul mooy bu nit ki bàyyee julli ci jàpp ne julli warul loolu yëkkër lañ tuddee al jahd mais bu ko bàyyee ci ak tayel ak sàggan loolu dañoo wute ndax dafay génn ci lislaam wala du génn ci lislaam ñenn ci ñoom ne day génn ci lislaam ndax yonente bi alayhi salaam moo ko tudde lislaam ci xadis jaabir allahdu alladi baynana wa baynahum salaa faman tarakahu faqad kafar wala faman tarakaha faqad ashrak ak li mu waxoon ne bayna rajul wa shirk wal kufru tarku salaa loolu moo tax ñenn ci ñoom jël na kufru boobu day koy génn ci lislaam ñenn gis na kufru duna kufru la comme lu mu ñëwee ci lu bëri ci tafaasiru salaf loolu sax bokk na ci li ma li ma naqala indi ko fii te aw ma jot nekk di ko traité mooy wa man lam yakfur bima anzalallah fa ulaika humul kafirun lépp ci salaf boo demee ci tafsirul imam at-tabari ibn jarir at-tabari al-jamia tafsiram boobu li mu fa indi ci aqwalu salaf li ci ëpp dañuy wax ne kéefër boo xam ne du génnee nit ki ci l'islam ñenn ci yàlla di wax yahudi la ci nam wala ko def lu mel ne leen defoon al imam at-tabari bi mu ñëwee ci njeexitalu li mu mooy ne kéeféer la boo xamante ni bu fekkee nit ki dafa jàpp ne la mu def dafa dagan ci la koy génne ci lislaam wa illaa bu yemee rek ci jéng ci bañ a àtte li yàlla wàcce du ko génne ci lislaam waxoon ko ci ne aaya ba lañ déggee kenn waxu ko ci lislaam parce que koo ko wax ci lislaam di nga takfir ñëpp ndax boo jëlee li aaya bi wax nga jëfe ko te rek yem ca loolu sàmmoo leneen li muy tekki mooy képp koo xam ne ak masala ñëwoon nga àtte ci lu waroo li yàlla santaane génn nga ci lislaam aaya bi loolu lay tekki est ce loolu ñeme nga koo jëfe doo ko jëfe kon loolu li ñu tekki mooy aaya bi pour nga dégg ko foog nga tawfiq ko lëkkale ko ak leneen loolu lañ tuddee a rat wala iltifaat loolu nag ñu bëri ci ñi sit daal di def takfir ak di jël yenn texte yi ko jëfandikoo duñ ko nangoo mooy chaque fois bu ñuy ci texte yi boo leen waxee texte yi leen di jëfandikoo ngir yàlla lëkkale leen ko ak règlul islam yi lëkkale leen ko ak maqasidu sharia dañuy bañ loolu moo leen di yóbbu ci njuumte fekk ne yàlla nañ dañ naan qaala allah qaala rasulullah bu dee mazhar bi nga wax loolu duñ ci waru ndax alxawaarij ibnu abbas bi mu demee ci ñoom yonent bi sax laay wax laata ibnu abbas dafa waxoon ne yaxqiru ahadukum salaatahu ila salaatihim wa sawmahu ila sawmihim yaqra'uuna alquran wala yujawisu xanaajirahum wala taraqihim dafa wax ne kenn ci yéen saxaaba yi la doon waxal saxaaba yi ku nekk xam na seen jàmbaar ci jaamu yàlla mu ne kenn ci yéen saxaaba yi dafay xeeb julleem ci wetu julli ñooñu ndax seen i julli nu mu bëree xeeb kooram ci wetu kooru ñooñu ndax seen koor nu mu bëree mun dañuy jàngal xuraan du weesu seen i put pour dem ci dënn yi ndax dégguñu ko Ibn Abbas bi mu demee bokk na ci remarque yi mu def nee bi muy dem dafa sol yëre bu rafet pour provoquer leen parce que xam na ni ñoom boo toilette dañ naa nitu àdduna et nitu àdduna nga mu bëgg leen wan ne toilette lu dagan la ci l'islam bu fekkee nit dëppoo nag condition yi l'islam santaane ci wàllu col kenn terewul nit mu sol lu rafet yonente bi alayhi salaam daan sol manteau bu rafet par parfum boo xam ne fu mu romb xet gi day xeeñ nit ñi moo tax bara wax ne sa gis na ko mu sol benn manteau bu rouge peña gi ba mu daanu ci ginnaaw ma koy xool di xool weer wi ñoom ñaar ku ci gën a rafet alayhi salaatu wasalaam mi ngi ci ab samaayil limaam tirmidi loolu Ibn Abbas def kon da ko def pour provoquer leen bi mu ñëwee si ñoom di nenn di daaga sant ak ñoom mi leen teg seen kanam yi dafa ñuul kukk seen bët yi xonk ndax dañoo fanaanee julli ba guddi gi yëpp dañ ko fanaanee julli kon tachaddud boobu du ci loolu la xamee ku nekk ci dëgg ak ku nekk ci dëgg du ci tachaddud comme ni ko ñenn ñi di foogee léegi-léeg tachaddud moo tax ñenn ñi li ci ëpp bu ñu la bëggee impressionné du ci ay adilla la ñuy àttee moo tax masiixu dajjal bu ñëwee ci mujjug jamono di bari mbooloo ndax ci ay sentiment rek lay lay lay lay sukkandiku nit ñi ci ay sentiment lañ koy àttee moo tax moytandiku di saa di àtte ci ay sentiment bu dee takfir boobu nga wax ci sa xukk xukma taariku salaat ñeneen ci def jàpp na nit ki bu fekkee daf koo bàyyi ci sàggante rek du ko génne ci lislaam kufru duna kufru la ñeneen ñi ne bu ko bàyyee ci sàggante da koy génne ci lislaam mu nekk xilaat boo xam ne bay na salaf wax ci rey bi faalaan ku bàyyi julli dañ koy rey xataan ndax loolu la parce que rey dafa am ñaari sabab rey boo xam ni xadd la mooy lu mel ne ko rey nit ñu rey ko kenn du wax ne dañ koo rey fekk ne daa nekk dañ koo rey parce que dañ koo reylu waaye duñ ko rey ci kaw nekk yéefar wala koo xam ne dafay so dafa lan sange dañuy wax dafa sange mooy ku sëy ba pare dem njaaloo ray boobu ñu koy rey du dafa génn ci lislaam beneen wax yi ci des mooy ñu ne dañ koy rey ku bàyyi julli waaye buñ koy rey day fekk ne ray boobu rey ku génn ci lislaam la kon boo waxee loolu dinaa la ci dolli loolu pour wan ne la masala xilaaf la xilaaf bi dëpp ci asalaf la woon alimaam ibn Qayyim bi na ci benn teere tuddee ko xukmu taari asala wa xukmu taarikiha jàngat ci lu yaatoo yaatu masala boobu wal ilmu inda allah Aboubacar Ba Aboubacar aleykum salaam wa waaw ñu ngi sant Oustaz Mor ci waxtaan bi laaj bi rek moo di ne comme ni ñu ko xam ne suñu dëkk bi dafa am ay nit ñoo xam ne ay atbaa lay nekk maanaam ñuy topp yenn kilifa yi leen topp ci ak réer ndax ñooñu dañuy wax ne ixaamatul xujja ci ñoom day doy rek wax li nga xam ne moom la ñuy dégg ci ci xutab yi ci ci masaaji bi ñu koy wax di leen xamal ne li ngeen di def wala boog li ngeen di topp euh, yoon yi leen jëme du yoon wu baax wala boog yoonu kufr la wala boog li ñuy déglu ci waxtaankat yi ndax loolu rek day doy ci ñoom xam ko ja wala boog dañ naan ku nekk ci ñoom day jar ku nekk ci ñoom nga taxaw ak moom leeralal ko loolu ne lii moo ciy atteb yàlla subhanahu wa taala salaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu cheikh lislam inni daiman wa man jalasani yalamu dalika minni min acdami annaasi nahyan an an yunsaba mucayanun ila takfirin wa tafsiqin wa macsiya illa ida calima annahu qad qaamat calayhi alxujjatu risaliya allati man xaalafaha kaana kaafiran taara wa faasiqan uxra wa caasiyan uxra wa anni uqarriru anna allaha taala qad gafara li hadihi alumma xataaha wa dalika yacumu alxataa fi almasail alxabariyati alqawliya walmasail alcamaliya وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية ala kulli xaal li may bëgg a jàng foofu te góor gi rahimahullah wax ko mooy ne nit deesu ko takfir lu dul ne dafa am iqaamatu xujja bu am ci moom mooy ne xujjatullahi qad qaamat alayhi bu fekkee def na jëf boo xamante ni cosaan jëf bi jëfu kéefër la wala jëf boo xamante ni jëfu bidaa la bu ñu war a xukmu ci moom wala fisq bu ñu war a xukmu ci moom foog ñu def iqaamatul xujja mu def kañ la ñuy wax ne qad qaamat alayhi al xujja maanaam kañ la ñuy wax ne xujja taxaw na ci kawam layu yàlla taxaw na ci kaw nit léegi ndax dafay doy nit ki wax ne man wax naa ak moom te li ma wax ak moom leer na leeraay boo xamante ni bu ko nanguwul rek li muy tekki mooy dafa weddi wala dafa féttéerlu léeg-léeg loolu nit ki mën na ci salfiyee boppam te du ci bàyyi xel ndax li tax nga ci salfiyee sa bopp mooy léeg-léeg yow boo yaakaaree ne ku wute ak yow dafa sànku wala ku nanguwul jël sa wax dafa fetteerlu li muy tekki mooy da ngaa jox sa bopp dayoo bu toll ne yaakaar nga ni leeral nga dëgg leeral boo xam ku ko jëlul rek li muy tekki mooy kon dafa fetteerlu moo tax loolu buntu boobu jar na def naan léegi bu ñu nekkee ci dëkk bu mel ne suñu réew mi ñu na di Sénégal ay nit nekk fi di def loo xam ne xam nañu lii bidaa la yenn bidaa yi bidaa mu kaffira la lu mel ne kuy saxal ne am na yonent bu ñëw ginnaaw yonent bi alayhi salaam loolu bidaa mu kaffira la wala kuy wax wahdatul wujud moo xam day wax alxulul wal itihad wala muy wax ci wahdatul wujud mu après alxulul xaas la wala xulul am kooku tamit aqida mu kaffira la ak yeneen bidaa yi nga xam ne dañ ko fii léegi am ci yenn yoo xamante ne duna dalik mën nañ wax ne du bidaa mu kaffira mais bidaa mu fasiqa la comme taqsim bi ci alimamu zahabi def ci almuqiba léegi bu fekkee dañ nekk ci dëkk gis fi ay nit yu jëfe bidaa yu mel noonu mu tasaaroo lool suñu réew mi am lenn lu fi nekk ci ahlu yoo xam ñu ngi leeral bidaa ak yooyu di leeral ne bidaa la léegi dañuy xool degré wu wax fan la àgg ci nit ñi mën koo dégg jariñoo ko ak ñàkk koo mën a dégg jariñoo ko loolu foog ñu xool ko bu baax parce que mënuñu wax ne am na lenn ci ahlu sunna yu fi nekk comme ñu ngi wax di leeral bidaa yu mel noonu rek kon képp ku ci nekkati amatuloo ngànt qad uqimat alayka al hujja ndax daawatu ahlu sunna àgg na ci leer ak ñu dégg ko ba àgg ci na léegi ñoom ci seen bopp aqaamul xujja ala nnaas foofu la wax di nekk loolu dafa nekk buntu boo xam dafa laaj ixtiyaar mooy dafa laaj tey ndax li tax mu laaj tey mooy boo ci dogoo ci lenn li ñu cay ti mooy kon léegi taxawal ci ñoom atte yooyu nga xam ne da nga jàppoon ni nit ñi dañ cee am ngan te ñëpp tamit tolloowuñ parce que ñu ay tabaqaat lañ yow li nga wax mooy tabaqaatu al muqallida wala atbaa atbaa yooyu fi alan ak aktaruhum juhaal juhaal dañu am xusnu zann ca ñuy topp yaakaar ne li ñu nekk dëgg la ñu topp leen ci loolu loolu laa waxoon tànk ci alimam ibn alqayim ci tabaqaatul euh, al al mukallafin yi mu doon wax ci tariqul hijratayni bi mu waxee ci tabaqaat yooyu bàgg ci tabaqatu al muqallida min al kuffar mooy yéefar yi nga xam ne dañuy toppandoo seen njiit te dañuy leen di toppandoo tegul seen xam ci kaw xam-xam nee na amuñu ngànt ci ne dañu leen di jàppee ay yéefar waaye nag nee na yowmal qiyam seen ñàkk xam boobu nga xam moo taxoon ñu topp leen day tax dañuy dugg ci ahlu alfatra dañ leen di imtixaan kon loolu li muy tekki mooy alimam ibnu qayyim da leen jox uzur mais nag bu ñu nekkee ci réew mu mel ne Sénégal te daawatu ahlu sunna nekk fi daaw leen crédibilité dégluwuñu leen leen endoctrine nañ leen ci ñe leen di topp ñu ba xamal leen ne ñii li li ma doon wax sànq ci chrétien bi nekk ca ni mu ko déggee mooy prêtre bi fi nekk di wax ak moom ci église bi tanaan ko ñooy raykatu nit ñeeg ñooy rek la xam ci l'islam ahlu sunna tamit dañoo yàq seen der ba ñu bëri ñi leen ñàkk déglu du bañ a déglu ak bañ a jël dëgg kon du féetéerlu mais dañoo jàpp ne la ñu topp njub la te ñii li ñu indi réer la boo xam dañ leen a bëgg a jële ci njub léegi loolu kon mën na nekk subaha te subaha bu fi nekkee day day war a nit ki am ngànt moo ne subaha la bu nekk ci ñoom kon yow yaay jéem a góorgóorlu nga jëndi subaha boobu loolu loolu tamit ñëw na ci waxu cheikh l'islam ci yenn ci ay mawaabi yoo xamante ni indi woon naa ko fii ba mu wax ne deesul takfir ni su dul nga indil ko xamatul xujja ci façon moom day jëfe subaha bi nekkoon ci moom léegi est ce nga wax ne nit ñi subaha nekk ci dañ na daa fekk ne dañoon boobu xëy na boo kenn di laaj balaa muy affaire ci laaj bi ma gis wax jooju nga xam ne cheikh l'islam wax na ko rahmatullah naam vraiment ñu organiser parce que waxoon nañ ñoom am nañu benn question wax waaye nañ leen ko waaw ah, alhamdulilah wasalaatu wasalaam ala rasulillah euh, kàddu bi dañ koy jël ci turu du bi quoi lañ koy jël parce que jotaay bi ñu koy organisé dafa am benn mbir bu xew xëy na ñoo xam ne fii la ñu yégee mbir bi loolu moo tax sax ni si ñaan euh, mbokk mi pour mu may ñu minutes yoo xam ne wala quelques minutes du moins yoo xam ne dinañu mën a leeral benn mbir liñ koy laaj nag dafa doon loo xam ne lu simple la lii ñu organisé nii benn jéego la ci jéego bi def ci maanaam fitna bi nga xam ne moom moo am li muy wax nii dafa am ñoo xam ne ñu ngi dëkk ci gox bi ñu dëkk ñu muy tëngee diggante tëngee deg baar yi ñoo xam ne afkaar yi moom maanaam xalaat yi mu ngi seen bopp ba am na ci ñoo xam ne ñun yëg nañ ne ñu ngi commencé dox di dem ci ay nit pour jëm leen convaincre pour génn ñu fekk ci leen ci lu ñu nekk léegi nag ñun premier jéego bi ñu ci defoon mooy def nañ suura Euh, décidé woon ne ñooñu dañuy woo mbooloom yëpp leeralal leen ñooñu lan mooy seen jubluwaay ainsi de suite ak donc lii benn jub benn jéego la beneen bi ci des mooy ñun ñu toogoon nga xalaat ba xam ndax ñooñu ndax dañ leen di jël écarté leen carrément fekk leen nële xool nag nan la ñuy doxalee ak mbooloom ñu fi des yaakaar naa ñi fi toog am na ñu fi toog ñoo xam ne soxlawul tudd tur ñoo xam ne ñu ngi fi toog jot nañu am jotaay ak. ñooñu noonu tax ñu ngi fii xam nañ leen si mbooloo mi lañ doon ñëw jékki-jékki nañ gisatuñ leen ci mbooloo mi nanga nanga ñu la affaire na ñuy laaj mbokk bi maanaam ñun suñu mbooloo bi moom maa ngi koy wax sànq ne que 2003 la gëjoon fii te ngi ci diine bari na lesoon musée mu xaadala diggante boobu organisé woon nañ ci ba li fi jaar yëpp jaar ba ñuy si ñu doon dox maanaam traversé ay kii yu bëri ñu yëg si ba si maanaam fit dana fit na am commencé tàmbalee dugg si sunu mbooloo ñu koy laaj maanaam moom yan nasiixa la ñu mën a jox ak yan ban jàppale la ñu mën a jàppale ba maanaam fit boobu mu duñu wax mu bañ a dugg si mbooloo parce que dugg na si ba pare mu ngi si mais mu bañ a propagation mu bañ a nekk loo xam ne day continuer di tasaaroo bismillah alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala nasiha bu mu am mooy ñu continuer di nekk ay mbokk ci ci lislaam te mu tegu ci kaw ngëm yàlla tegu ci kaw dëggu addiinu nasiha la yonente bi alayhi salaam waxoon addiinu nasiha addiinu nasiha qul naa li man qaala lillahi wa li rasulihi wa li kitaabihi wa li aimati almuslimina wa ammatihim kon diine laayante biir boobu di am ci diggante jullit ñi annus li muy tekki mooy as sadaqa bi sidq mooy mbokkoo ak ànd goo xam ci kaw dëgg ak yëwanal ak baaxal lay tegu loolu moom moo war a nekk suñu lien di dox suñu diggante suñu biir al muminu lil mumini kal bunyaani yushibbu baaduhu baadan mooy dañu war a àndante ci anam boo xamante ni dañuy dëgëralante di yëwanalante te mu nekk loo xamante ni ci ci ak dëggu la tegu làq-làqal ak nëbb amu ca li ëpp solo ci loo xamante ni dinañu lëkkale ginnaaw suñu ngëm yàlla mooy ñu jéem a góorgóorlu ci wàllu xam xam-xamu alquran ak sunna comme ni ko Cheikh Nasir bin Albani rahimahullah doon jooytoo ci at tafsir wa tarbiya di wax ne jamono juñ toll ni ñi ñu ngi yëtti woon tafsir mais wala tarbiya tamit mënu cee ñàkk mu jaanibu tarbiya jaanib boobu noonu da ko doon jooytu di wax ne lu bari ci ndaw li nga xam ne ñooy delluwaat ci yoon alquran ak sunna buñ ñëwee ku leen encadré formé leen def ci ñoom tarbiya biñ laaj amu amuñu ko muy di am benn vide bu fi nekk boo xamante ni ñenn vide moom la ñuy exploité ndax munoo def quartier bu nekk nga teg fa benn formateur bu yëngatu ci xam-xam muy def ak nit ñi ay xalaxaat di leen jàngal yenn xalaat yi bu commencé di feeñ mu teel ko nëpp mu fay loolu du fa am léegi nag bu fa vide bi amee ñenn ñi ci loolu la ñuy profité exploité ko ñoom ils sont disponibles chaque jour ñu ngi dugg fu nañu fay dem di ñëw boo jaxasoog ñoom tuuti rek ñu commencé di def yooyu ci yow mais li nit ki a xam mooy bul jël sa diine nga jox ko kenn li alimam malik doon wax naan awa kullama jaa rajulun ajdalu min rajul tarakna diinahu min ajli jidaalihi ndax saa nit ñëwee rek dàq mën a dàgg xamoon dem topp ji mooy li yonente bi alayhi salatu wasalam wax ne ma dalla qawmun ba'da hadihim kaanu alayhi illa utul jadal summa qaraa qawla allahi taala ma darabuhu laka ba jadalan bal hum qawmun xasimun li mu doon wax naan saa boo gisee ay ñu nekk ci njub ba bàyyi ko dem ci leneen rek ay nit yu mën a dàggatante la ñuy doon ay nit yu sax làmmiñ la ñuy doon mais sax làmmiñ boobu ak xam-xam jotawul dara moo tax mu ne maa darabuhu laka illa jadalan bal hum qawmun xasimun loolu signe bu bu bon la signe bu ñaaw la wàllu soppeeku googu di gaaw a soppeeku ci say position loolu nekkul lu gën moo tax Xusayfa ibn al-Yaman dafa bi coow li amee ci fitna bi am diggante bi fi yonente bi alayhi salaam jógee fitna bi dem ba am nit ñi di wax ci fitna bi ñii di ci tàbbi daf ne ku bëgg a xam ndax fitna bi laal na la wala laalu la fal yandur ila dalalin kaana yaraahu hudan wa ila hudan kaana yaraahu dalalan li mu doon wax naan ab dalaal xaq ab dalaal an tuarif an an an taarifa maa kunta tunkir wa tunkira maa kunta taarif mu ne ku bëgg a xam ndax fitna bi laal na la wala laalu la xoolal njub boo xam ne yaa ngi ci tey réer la woon démb ci yow wala réer boo xamante ni réer nga ko jàppee tey njub la woon ci yow démb mu ne boo gisee loolu ci yow rek xamal ne kon soppeeku nga fitna bi laal na la doxinu jamono ak yënguutug jamono ak problème yi am ni tamit nit ki nay motandiku di soppi ay askaaram gaaw adopté ay askaaru takfir wala askaaru waa jiw wala yu mel noonu mais boo nekkee ci mbir ba nekk teg say mbokku jullit xam ci ay boroomi xam-xam dégg la ñu la ciy wax di la ci yar guddeeg bëccëg sa saa bu nekk benn waaye ñëw bëgg la ci jële na nekk lu leer loo xamante ni yaqin nga ci am boo amul sikki sàkk te xool ko ci nit ki la ciy jëlee ban dayoo la am ci l'islam ba war la mën a convaincre convaincre conviction boobu mu lay jox boo xam dina tax nga bàyyi li nga amoon ci loo xamoon ci ay nit ñoo xamante ni amoon ko ci ñoom rafet njort ne xam-xam mi ñoom bu tax nga waroon leen mën a déglu nga daal di coupé loolu yëpp dagg ko bàyyi ko dem topp lay jox moom est ce que am na dayoo ci lislaam bu tax nga mën a accepté loolu ci moom moo tax imam malik ne ndax saa bu nit ñëwee dàq dàggasante nit rek ñu bàyyi suñu diine bi ñu xamoon dem toppi jikko moo tax omar ibn abdul aziz doon wax ne man jaala diinahu garadan wala aradan lil xusuma akthara min altalawun doon na wax ne koo xam ne da jël sa diine def ko jubluwaayu dàggasante wala nga jël sa diine exposé ko pour dàggasante bi fu dàggasante bi gën a tàngee nga dem jëli ji position boobu da ngay xool daal toog daal di xaar gaa ngi dàggatante nga ne naa toog xaar buñ dàggatante ba gën a kii nga dem jëli loolu nee na képp ku def loolu di nga bëri looy soppeeku ay couleur ndax dàggatante moom du fi jeex gaa yi chaque jour buñ ñëwee ci coow coow loo xam da nga naan ñii li ñuy wax ni xanaa yàlla daa wàcc ci ñoom alxuraan bu bees waaw loolu moom sawaay ci fi mu jaar yépp bu bu leen yéemu loolu moom mu sa nekk seen mbir dàggatante bu dul jeex sax làmmiñ mën a wax mais loolu bu mu la yëm li la yëm mooy àndal ak dal li ngay xool nga teg ko ci xam-xam te bul par parlo beneen bi ci des mooy boo xoolee ñi ji fi ci al al mu'tazila surtout ñu yàlla mënoon wax mayoon wax lañ xam nga ñoom boo xoolee sax ci wàllu raison raison li ñuy wax raison ñoom ñoo ko gën a développé moo tax bu ñuy wax ci ay euh, ay cartésien ay affaire yu mel noonu di di wax tubaab yi di wax Euh, ci pensée boobu naan la pensée cartésienne dañuy wax di leen di ko askanale seen borom yi xam ne ñu ko njëkk a développé doon ko développé mooy mu'tazila yi seen madarasa bi ñu tuddee al madarasatul aqlaniya ñoom ñuy wax ci ab tahsin wa taqbih al aqliyaani boo xoolee dàggasante rek lañu mënoon ci liñ développé ci ay xeetu waxin ak ay mbir yoo xamante ni dañ ko jàngoon xam ko ba màcc ci lool te boo xoolee cheikh al islam rahimahullah téere yi bind di ci wax ak seen i kàngam wax ju xóot lay doon ak ñi di nga xamante ne àgguñu woon ci al irtisal mais dañ laaroon ci al kalam mu bind ci téere boobu di daru la aql wa naql muy téere bu naqaree jàng ndax niveau bi ñu ciy waxee loolu yëpp lan moo ci lan moo lan la lay jàngal li mu lay jàngal mooy ñooñu biñ ñëwee tàmbali songu ahlu sunna ak benn façon waxin beeg benn façon xam-xam bu xóot beeg yooyu yëpp jariñu leen amalu leen jariñ waaw mbir la boo xamante ni pënd bi dina jóg a jóg a ba ñu bëri waru ci mais bis bu pënd bi wuññeekoo ñu xam kan moo war fas ak kan moo war mbaam ahlu sunna ñoom seen yoon dañ ci mës di dox di ci continuer coow li dina jóg fënd bi dina wuri mais dama jàpp ne li yumeyyiz allahu alxabisa min at-tayyib mooy ne léeg-léeg euh, bouleversement yi am ak problème yi am léeg-léeg ñu ci bari ci ñenn ñi nga xamante ne dañoo néewoon doole sikki sàkk nekkoon ci xol yi wala ñooñu la ci yàlla di raxas ñu génn ndax loolu yàlla daf ko mos a def mu nekk sunnam même nee na ci ayatul euh, ci ayatul ayatu al imran bi mu waxoon li yam li li li lan la ko ci waxitu la laysa li yuhlika man halaka an bayyina wa yaxya man xayya man xayya an bayyina mais foofu dafay wax ne euh, wa yamxaq al kafirin bi mu waxee wa yamxaq al kafirin bidaayatul aaya tayib ko fàttali ko après nga wax ma ko ci alif sourate al imran mooy ne foofu yàlla dafay tudd jaamaarloo bi ñaari kuréel yi jaamaarloo mooy ci kuréelu yéefar yi ak kuréelu jullit yi mu wax ne jubluwaay yi mu ci am bokk na ci mooy segg jullit yi ba ñu set yàlla segg def ci ñoom tasfiya tasfiya boobu mooy ñi dëgguwul dootuñu def ci seen i sàppe dinañ génn dinañ feeñ mooy yenn bouleversement yi doon am yàlla da ci loolu am na ci borom xam yi wax na tamit al isra wal mi'raj bi ko yàlla defee ci màkka loolu bokkoon na ci jubluwaay yi li yumaxis allahu amanu li yumaxis allahu alladina amanu wa yumxaq alkafirin mooy tam tamxis bi yàlla bëggoon def ci ci ci ci jullit yi tamxis bi mu leen bëggoon defal wa yamxaq al kaafirin kon tamxis boobu foog mu am léeg-léeg te lan moo koy jur mooy coow yeeg bouleversement yeeg jaamaarloo yi ak yu mel noonu loolu moom moo koy indi mooy chaque fois da gis man xam naa ñoo xam ne ginnaaw yàlla ci sama sabab lañ ñàkk duggee ci masalatu al baya wax ne dañu war a jaayanteeg euh, nguur yi ndax kër kër ci kër ci kër ci kër ci woon jël buñ ko jëloon bon du ma wax ne damaa ñu bëri ci ñoom convaincre loolu amul damay wax yàlla tax kenn du wax di yëkkati sa bopp mais dama cee gis exemple xam ci koo xamante ni ñu toog ci munaafax ci waxtaan ci ba mu dellu ci ginnaaw tegaat wax ji ci suuf tey ni ngi takfir mënoo leen a téye ci digg bi ak si am genre yoo xam ne imma gauche wala droite waaw chaque jour mënoo fexe ba ñun am na équilibre nii ci seen wàllu diine chaque jour bu afkaar yooyu ñëwee foog nga seen leen ci mënoo ci dara waaw seen nature la finalement quoi ba tax na loolu mënoo ci dara boo fi doon indi borom xam gën a mag ci àdduna ñu wax ak ñoom dinañ dem seen yoon kon loolu yow da ngay wax te yàlla tax mais njubu nekk ci sa loxo nasiha la ci mën nasiha yaa ayuha alladina amanu alaykum anfusakum laa yadurrukum man dalla ida htadaytum jottalil kàddu yàlla nga wax li nga mën mais njubu nit ñi nekkul ci koo xamante ni dem na ba loolu benn jour benn mbokk bu ñu dajee masjidu sunna fekk ma daan amoon fa dars fiq ñu pare mu ñëw gis ma dima laaj ci masail yooyu ma wax a wax ba sama doole jeex ma pare lan laa ko wax yaa xëy bu dee sa digganteeg sa boroom man sama yoon nekku ci sa diine sa digganteeg sa borom la man lu ma mën mooy wax la nasiha la boo gëmee ne sa digganteeg sa borom loolu ñu la wax mooy dëgg boo xam ne boo dee dajee sa borom sa sa borom mu yërëm la yërmaande bu tax nga dugg aljanna bismillah albaab maftuux bu la neexee suba boo moroom bee ba ma nuyu bu dee yaakaar nga ni dëgg jooju yàlla wàcce ci yow mooy dafay tax boo ma bee suba doo ma yu loolu la la yàlla sant bu la ko sa borom santee man du ma la ko tere demal nga defi ji ko ma assalaama nga dund sa diine ma dund sama diine jeex na tàkk parce que nit ñi moom moo leen aussi quoi doo takk ay buum doo takk ay buum ci baat nit ñi di ko téye man wootewu ma ci mbooloo wootewu ma ci jamaa euh, soxlawu ma ku ma topp ak ku ma toppul wallahi laazim yow nit ñi da ngay waxtaan ak ñoom ci diine laay biir sa kémte laay kàttan bu ngeen jógee ci jotaay bi mën naa am yow man xiyaam ngeen di dajee ndax mën nga tey jóge xëy bu ngeen gisante waat sax kenn xamul ba xam di nga fanaan wala do fanaan kon yow wootewuloo pour woote jëmale sa bopp wala ngay am ay intérêt yu seen ci nit ki gisee ni li ko li mu gëm mooy takfir okkaam yi takfar takfir mujtamaat yi masaayix yi ko borom xam jox tàmbalee ko ci jamono yu mujj yi Cheikh Nasir Albani risaala boobu ma wax léegi ak wax yi mu fa wax ci alxukmu bi xeyri ma anzala mu wax shabaab yi Cheikh Bun Baaz déggu ko appuyé ko Cheikh na Cheikh Cheikh Ibnul Uthaymin dégg ko appuyé ko borom xam-xam su yi ñu mën a tuddee ay maraajax yu ñuy dellu ci ñoom ndax ni niveau ci xam-xam yépp même wax jooju la ñuy wax ba léegi kenn ci ñoom changé wu ci léegi tey ci internet bi ñoom la gars yi di keroog joxe naa ci benn exemple ba mbokk boobu ma woowoon di ma taakale bokk na ci ma taakale ma ne ko man dama xam koo xam ne personnellement dama ko xam ndax sama xarit la mi ngi ci yooyu léegi moom moo ma yónnee woon message boobu di wax ci alxilaafa ci en français mu woo tam benn xarit bu nekk Espagne ñuy waxtaan ñoom ñaar bay waxtaan ci Cheikh Fawzan kooku di ko nettal Cheikh Fawzan gars yi nekk fële Irak yenn jëf ñuy jëf yoo xam daf ko ñaawlu mu ne ñaawlu boobu kooku di ko ñaawlu ak wax yooyu mu wax mu ne loolu mooy ne ko génn ci l'islam mu takfir ko ku takfir Cheikh Salih Al Fawzan waaw même bu fekkee alim la def ijtihaad juum ci lu mu xukmu ci benn jamaa ndax xukmu bu mu xukmu ci jamaa am ci njuumte loolu da koy génn ci l'islam parce que nit ki buy wax waxul ne jihaad amul ci l'islam kenn jihaadul ci l'islam jihaad baaxul déedéet moom moo la gën a xam ne jihaad na ci baax na mais te lii nga yëkkati tuddee ko jihaad loolu lay wuute ak yow di ci jàppante ak yow voilà léegi nag loolu bu ci jàppante ak yow yamaleel wax ji foofu kon voilà yow boo jàppee ne loolu dëgg la jihaad la moom mu jàpp ne du jihaad kon seen problème nekkul ci ndax yàlla farataal na jihaad wala déet nga koy taxal moom mu koy dàq bu doon lool la nga mën koo takfiir mais li muy discuter ak yow mooy ndax jamaa bi li def mën nañ koo tuddee jihaad bi yàlla santaane wala déet kon loolu même boo jàppee mbitaas bi mënoo koo takfir mais loolu nag ñoom duñ def ndànk ci yooyu dañuy jàpp ne lii jamaa bii di def mooy jihaad bi yàlla santaane bi nga xamante ni képp ko déngi déngi ci ñoom niñ koy defee ñoom waxuma li yàlla santaane de te borom xam bi moo la ko gën a ma xam mën a xam moo la ko gën a mën a jugé parce que xam na moom jihaad ci l'islam naka lañ koy defee mais même borom xam permettre loo loo loo ko jamaat yooyu mu xokmu leen kenn ci mbooloo yooyu bi ma woowee lu ma wax ne ma dama tudd di ma wax di ma wax ba commencé bëgguma sax di cité ma Cheikh Ousama bu bu alqaayida ma ne ko fay léegi yaa ngi wax di tudd ñooñu ñooñu say borom xam-xam lañ tey yow ci jihaad seen wax ngay jël waxu borom xam ne doo ko jël Usaama du borom xam ingénieur la génie civil yaa yaa ngi wax naan cheikh pour yow waxam dafa mel ne wax bu jógee ci asamaan keneen ki ci topp ku ko wut tey ay mën a zawahir la docteur la yaaxe docteur la docteur nga jël ko jël ko aj ko ci kaw borom xam loolu fu ko teg léegi ñooñu tey ñooy jiite jihaad bi nit ñi di def ak bu ñu dul def dem di leen déggal mu yóbbu la sax ba ngay takfir ay borom xam-xam boo demee ci beneen jihaad itam même chose genre nit yooyu nga fay fekk ñu autoproclamé wu ñoom ñoo fay nekk diriger seen i groupe di def ay njombe bu leen borom xam dina nasiha di wax shabab yi topp seen ginnaaw di takfir borom xam naan dañoo ragal ñoom ñooy topp ci ginnaaw buur yi léegi ci ban àdduna lañ nekk moo tax xamaas boobu liñ doon wax naan al awatif ida lam tukbax bi diinin wa aql saarat awatif al awatif nañ jël règle boobu al awatif ida lam tukbax bi aqlin wa shara saarat awaasif say sentiment boo ko tënkul jéngu ko ak xel mu ñor ak xam-xamu lislaam bu wér ay ravage rek lay def wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa nabiina muhammad wa ala alihi